di leen balo àq di leen baalu àq di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di wareef ñu nekk en direct depuis la foire internationale de Dakar wareef groupe Futur Média ñëpp fa tabakalla macha allah indi émission yu fii jagleel leen ko yéen ñi ngeen xamante ne yéen a ñuy bëggee mu mel ni nag saa su nekk rek damay am mbégte ni ma koy waxee di fego ak sama doom sama xarit fa tabakalla macha allah sama inspecteur waaye tamit seen inspecteur. ah Ndoye Bane maa ngi lay nuyu. di la ziar di mm-hmm. di la mën a inspecté. waaw <laughs> jaajëf merci beaucoup merci beaucoup Tade Gueye ñu ngi lay ziar baax a baax. Euh, di ziar euh, per Baboog njaboot gaak ñëpp. ñu ngi leen ziar bu baax a baax. di ziar mameek maamam ak waa kër ga. di ziar kilifa diine yi ak kilifa aada yi ci réew mi. macha ñaanal ñu yàgg fi lool te wér. di ziar waa Pire Sañu Xóor. Euh, imam Baak sëñ Moustapha Cissé Euh, ñu ngi koy ziar bu baax ak sëñ Maodo Cissé ak toute la famille Cissé moom parent ji bi Diagne ak monsieur le maire ñi ca Pire ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax nii fas yéene ñëw rek dugg ci la nga xam ne leen nekkoon waaye fii daal foire daal waaw ah, am na lu may fàttali am na lu mu lay fàttali waaw foire moom fii moom c'est dara du hasard déedéet dara du hasard sant yàlla julliwaat ci sangu-sang yi mu di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam fatabakalla macha allah en direct ah depuis le 6 mhm. Fatabakalla macha allah ñu fas yéene rek Euh, euh, ànd tamit ak suñu enquêteur ah suñu suñu suñu jarbaatu bopp mhm. man nee naa mami bi ci yar gi mami bi ci taar bi mami gi ci réglé gi mhm. gis nga yi ma lay defal ci suba noonu mhm. yooyu yëpp ay xeetu riiti la rek yi ma lay <laughs> jagleel yaa ko moom wala baw moo ko <laughs> bisimilah. am nga tey a riitil photo bi nag du ma mus a aimé. Ah, ah, ah, non foofu rek laa yem yow xam nga man. xam naa ñett xam na ñeent xamul waaw dellu di wax niñ ko daan waxee te jërëjëfati Cheikhul Khadim sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama na mag neen son Mandela tëpp koy jaloore di ziar mboolem kilifa diine yeeg kilifa aada yi di wax na ñun Sénégal daal jàmmay sunu mbokk kon yàlla nañ ko yàlla yónnee ba mu baawan di wax ne nag réew la moo xamante ne ku fi xuloo di xuus booy layoo na Sénégal la gis nga yaa booy foire bi ñëpp xappi naan fi mu toll nii ñëpp a ngi bég ndax xam nga Sénégal lii la ndaje mi su dul dara itam di ndaje mee xamante gi rek doy na kon ñi ngi delluwaat di ziyaarat ñëpp tey nag booy bala may nuyu sama maam Camara ji bent boy damay ñëw nag euh, joxe benn njaal boo xamante ne wax dëgg yàlla xam nga réew mi dafa am ko kilifa bu am solo gu fi jóge dëgg la ñu koy wax maam Samba Ndiaye borom ndigal mm-hmm. di woon sëriñu borom ndigal yi ngay dégg yëpp ñi takk deru ndigal gi ñëpp moo doon seen sëriñ di wax ne maam Samba fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge te wóor nañu ne dina taseek soppeem ba xaritam ba Cheikhul Khadim kon yàlla na ko teeru te dalal ko di nuyu nag sama maam Camara ji bi anta boy sama yaay yaay nag sama yaayu bopp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 dugg nag fa tabakalla macha allah ci prison yi nemmeeku bu baax a baax ñii nga xam ne ñoom la caat féetee gannaaw mhm. mami nee naa leen bërëb yooyu jombul kenn ay lingeera nga fa mhm. ay faarisa nga fa ay garmee nga fa ay mhm. nitu yàlla nga fa ay waliyoo nga fa nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye nag sañ nañu ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy docteur bu mag bi moom yaa rab bi yàlla nañu saafaraal waaye tamit saafaraal leen bépp xeetu jàngoro bu nëbbu ak bu feeñ ci barke laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam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 waaye tem ba ñu ŋànkoon ca télévision Futur Média bàyyeeguñu ko man ndax nag xam nga mhm. dañu waxoon sax ci benn euh, ayu bés lañ koy yemale mhm. mais nit ñi ci jëm boppam moo ne ñoom ñoo te mu fasar walle maanaam boot nit mu màtt la mhm. maanaam wor mhm. xew na ci jamono xew ci jamono boo xamante ne ne mënuñu ko bàyyee noonu ndax wor mu ngi ci diggante ay way dencante mhm. wor mu ngi ci ay diggante ay doomu ndey wor mu ngi ci ay diggante ay doomu baay wor mu ngi ci diggante ñi nga xam ne da ngeen bokk bëgg-bëgg yëkkati fa bëggoon yëkkati ndoo daanee la ndoo ñu war la mbas la kon na xeetu war yi bëri na bëri boo xamante ne ñoom daal ñu ne daal doyaluñu ci te bu ñu fàtte ni mami ñoom ñoo ñu fi teg seen bëgg-bëgg la ñuy topp ginnaaw yéen bëgg la ñuy topp kon dañuy xuusandi ci biir li nga xam ne moo di fasar wale boot nit mu màtt la xeetu wor xeetu jaafan yi nga xamante ne li bambara naan jaafan mooy wor jàmbara naan jaafan mañi mooy bo wor baaxul xeetu war yooyu nga xam ne moo nekk ci jamono kon mami fu ñu tënk woon ndax mën nga ci dellu waaye yaa booy ñi ngi tënk woon ci xam nga gars yi dañ naan bu leen ko bàyyi ndax doyagul ñi ngi tënk woon daal ci daanaka jotoon nañoo laal yu baree bari mais nag li ci gën a neex gars yi mooy ndooy dafa fecc woon mbër yi te jotu ko woon eggale ndooy nag yóbbante la àq la gars yi nga fecc ci waru mbër yi lool lool ndax intéressé na leen mbër yi xanaa taxaw ñu waaw dañ ko fecc woon rek waaye jotuñu woon a tasaare paquet gars yi nag nee lu leen intéressé la dëggantaan yaa xam nga fiñ ci laal yëpp mooy ci digg ñi ngi tàmbalee woon ci biir kër gi mm-hmm. génn ci biir kër gi ñëw ci ëtt bi mm-hmm. ñëw ba ci pénc mi mm-hmm. léegi nag ñu egsi nag ci fii nekk nag daf cee a tee tar sax booy moo xamante ne da war di joxe di jël ba ci fii dëgg na ndax dangay taxaw ak nit mu war laa woo ngeen war a sequb liggéey ëllëg nga war a génn fekke ko bitim réew wala mu delloo si la mu indi wala marchandise am même dese fii muy dem yéwane la ko nga gis koo dendal wala koo xam ñëw ba ci moom ne ko xanaa xamoo ko foire bi dee ko tee dem police waaye police anga koy wër de gendarme yi nga gis fii yëpp de buñ ko jàppee ci fii lañ ko jëmee gendarmerie foire di nga fi gis ñoo xamante ne tamit waray tax ñu jàpp leen fi sàcc yóbbu leen tëj leen ba ba foire bi di jeex duñu génnaat yaa war yaa ngi fii pour wan la ne la dafay tuxu fu nit ñi jëm ànd ak ñoom ba jóge nañ ca màggal ga yi war nañ fa war yu leen neex ñi ngi ci foire bi fi la war yi di commencé war mhm. sa saak mhm. ci sa saagu ba bi ñu indil ak fàttali ak indiwaat waaw fàttali waaw ñu dugg ci fàttali bi ndaxte dugg nañ ci wor yi nga xam ne ñooy am ci biir ci biir kër gi ci biir néeg bi ci biir kër gi ëtt bi ba ci mbedd mi ci kër gi nag taxawoon nañ fi bu baax a baax jëkkër ak jabar yoo xam ne dañuy dañuy worante yaay ak doom ah goroog euh, euh, goroog njëkke ñoom ñëpp dañuy warante te ñoom ñu bokk ci benn benn famille taxawante nañ ci ni wor tax mu metti mooy ki la gën a jege waroon laa jàppale ci bépp waroon na fomp say rakkooñ moom su la waree ci boppam day metti te kooku mooy waaw lim la su fekkee sa soxna la ku la benn euh, su maa ngi la koy sànq benn femme dab na ma ni ma euh, nga am jëkkër euh, ba pare am far mhm. wor nga sa borom kër dëgg la xeetu man ko tamit c'est vice versa su fekkee yow góor nga nga am nga am soxna. Mhm. ba pare nga am soxna ba pare. diina ñaar yëpp la tere def ñaar yëpp donc ñaar diina ñaar yëpp war la ko jàppee. ñëpp war la ko jàppee. mais beneen bi tamit ñëw nañ ci côté politique bi. dégg nga keroog keroog li ma la ci wax yi nga xam ne dañuy warante seen biir di defante naka sudul noonu. ba ñi nga xam ne say militant ci boppam. Mhm. militant yi di warante. Mhm. nga gis nit koo xam ni euh, om politique bi da koo defal lu ne. utal ko lu ne utal dugg sa biir kër. utal sa doom yëpp liggéey. bés jot mu soxla ko soxla la. nga lànk wor ko ndax xaalis bu ñu la jox tey tey tey tey. surtout élection yi day bari diggante yu mel nga gis ngay gis xam ne da ngay wor say militant li ngay waree say militant mooy militant yi ñoo fexe jàppale la ba nga ba nga toog. fa nga nekk ba nga toog nekk ba mu tàkk. waaw nga avancé ba leen. tax souvent nit dañ koy wax dañ naan mbër mbër ak oto yam dëgg la wala politicien ak oto bu paana yam dëgg la da nga leen di puus bañ tàkk ñu daw dem bàyyi la fa dëgg la yi ñoo lay jàppale bañ fal la directeur de société wala ministre wala député wala leneen mm-hmm. suñ la militant yi bëggee gis dootuñu la gis ut nga gardien ut nga xaj bu lay garde yooyu ñoom seen ba kenn ñoom mënatoo leen a gis mënatuñ laa mënatoo leen a recevoir ba dañu laa gis rek élection téléphone sax dootoo ko jëlati wala beneen bi mooy wor ci affaire u maraboutage maraboutage mooy mbëri da ngay gis mbër moo xam ni dafa am par exemple ku koy ñaanal muy am ndam mu am combat bu rëy sëñ bi laaj ko par exemple 2 euh, millions mu jox ko un million ni ko suma daanee ci suba ga indil la li ci des. Mm-hmm. mu daan ci suba ga mu fay portable sëñ bi bëgg koo jot ay at mënu koo jot ba tax sëñ ba def loo xam ni. Mm-hmm. waa ji dootul am ndam. Mm-hmm. loolu bari na fi ay mbër yoo xam ni. loolu dara teewule nu. dund nañ ko waaw dund nañ ko dara teewule nu loola. parce wor ku ñu ku wax mën ngaa war sax koo xam ne sax mbër nga nekk mbër wala nga nekk leneen ngay liggéey rek mm-hmm. nga war koo warta war defu la dara mm-hmm. defu la dara rek ak xam topp la dëgg la ak xam topp la bu wala ak yu topp ak xam topp la ba nga xam ne loo loo yóotu doo ci jot dëgg la waaw woor bari na ci ay collègue de travail dëgg la waaw collègue de travail ay nit tamit di toog bokk liggéeyukaay yow nga koy jàppale mu lay jàppale muy toog nga toog ak moom bokk ak moom bureau nga toog wax ko sa biir. dëgg la yëpp sama jëkkër lii sama jëkkër lee wala sama xarit ki may waaj a takk li wala ta ki may laa yow ko jigéen ki nga dem suufu ko ci jëkkëram. wala nga wala nga dem suufu ko ci ki nga xam ne moom moo ko war a takk. wala nga dem boole koog directeur am wala nga boole koog chef de service am. ba am ay problème ci liggéey kaayam loolu tamit souvent. da koy dégg ñu bari bari di di dund lu mel mel noonu te kenn nit ñi eh, daal rafetlu wuñu ko ñëwaat nañ tamit ci moodu moodu yi nga xam mhm. ni euh, foofu moom bëgg na fa ak faatu faatu waaw fa la raay ba moodu yi moom moom moom foofu moom euh, dafa doy waar parce que moodu moodu boo jox mun la ki gën a nekk sa noon ci ci dëkk bi ñu nekk mooy ki nga xam ne yaa ko paasal def ci moom lépp dalal ko dëkk ak moom ba mu am ay këyit mhm. dem wuti yeneen i xarit mhm. ba xam làkk bi sax la ni la koy waxee dañ naan su demee ba xam làkk bi rek mhm. day daal di soppeeku te loolu ñun sénégal yi ñoo koy defante suñu biir te loolu lu lu lu ñaaw ñaaw ñaaw la soo gisee sous région bi souvent da ngay dégg soo demee ci yeneen dëkk yi dañ naan la sénégalais yi bu ko bàyyi mu wax ndax su waxee rek dina la dina dina la dina la baab dina la duut souvent nee naa la tamit rey yi ñuy rey yenn sénégalais yi bitim réew néew ma sax looloo tax ñuy rey ñooñu ñëpp waaye tamit am na ca ndaxte soo waree ab tubaab boo xam ne da nga ko ñëw ni ko ah, dama laa bëgg mu ñëw moom tam mu bëgg la utal la ay këyit ba nga takk ko mariage ndeke mariage ba yëpp ba nga koy lal loolu lépp ba nga koy début ba fin lépp war war nga lal ba nga koy planifié war nga lal di te genre yooyu soo leen waree suñu la gisee attan na laa dóor bal ba pare hmm. tëdd ci kaso bi genre affaire yooyu kon ñu gis ne daal paquet yi que bu hmm. ci nekkee li mami wax waaye bëri na fi tamit ñenn ñoo xamante ne nekk ba ci seen liggéey kaay dañuy ànd par exemple taxawal benn mouvement hmm. yaa xam mouvement syndical la yaa xam loo leen di revendiquer waaye daal loo xam ne yéen ñëpp seen bëgg-bëgg la bi mu nekkee yéen ñëpp seen bëgg-bëgg nga toog ma mami toog ndoyu baan toog ma toog keneen ak keneen toog ñu bokk ñun ñëpp war a daane daanendoo daf ci am toujours woorkat woorkat biñ ci am nag mooy ki nga xamante ne day toog déglu day toog gëstu pour dem boole ji ca ka nga xamante ne ne que kooku su ko yëgee mbir ma tas mhm. xam nga li ma lay wax dafa ci am ay rassemblement yu ci bëri day am woorkat dafa am ñenn ñoo xamante ne ne que dañuy ñëw dugg ci kii bi nga defe ni dañu ñëw ndax dañu bokk ci service mën a nekk service mhm. dégg nga ngeen toog di nasandoo pour revendiquer seen droit wala dara ñu ñëw bokk ca te bañ ca bokkee pour rocceeku wor leen dem nettali bi la loolu tamit dafay nekk dafay bëri ci béréb yi mu nekk ay mbir yoo xamante ne mbir yu doy waar waaye soo dellusee tuuti ci li nga xam ne milieu sportif bi de manière général da bëri na ci ñenn ñoo xamante ne dañuy warante ñoom ci seen biir te bokk intérêt xam nga bokk intérêt par exemple ci misaal Euh, nga dem ci nawetaan yi wala ci yenn équipe de football yi yéen yéen a bokk intérêt ndax seen intérêt mooy ngeen gañe waaye ci biir bokk intérêt boobu léeg nga gis ci kenn koo xam ne seen intérêt moom ci défaite la nekk. waaw kon waaw waaw intérêt mooy waaw demal foofu. Euh, gis par exemple benn président président fédération. Hmm. ci boppam da nga baax sax ni nawetaan da ngay gis président fédération. waaw kay. boo xam ni dafa nekkoon fédération bi jiite ko. Hmm. wala mu nekkoon entraîneur. yoroon équipe bi. Hmm. wala mu yoroon ndombal tànk lu mag a mag a mag a mag. ci ay xam naa fi nga jëm. ndombal tànk lu mag a mag a mag mu yor ko ci ASC bi wala mu yor ko ci équipe nationale. Mm-hmm. ñu ñu ñu jëlee ko fa teg fa keneen. Mm-hmm. léegi nag kooku ci boppam du bëgg. Euh, équipe bi am am ndam. ndax ndaxte mm-hmm. su équipe bi amee ndam defetam defetam la moom. parce que nit ñi te peut ñu naan suñ ko fa jëlewul woon duñu am ndam. équipe bi di dem moom muy dugg ci maam mën yi wala du dugg wut ay pexe. pexe ah. bu mu mënti wut. mën a wut pour équipe bi mën a daanu. doo doo da koy def. man su man xam naa dara yor naa ay équipe nawetaan pire ayor kon euh, fii nii daan maa ngi la ko wax keroog ñoo jël coupe bi. ah yooyu te day am ci équipe nationale yu bare basket bi football bi. Euh, ñoo xamante ne la leen di daaneel ci ñoom lay nekk. la leen di daaneel ci ñoom lay bokk. gis nga gis nga gis nga Sénégal bi muy dem Coupe d'Afrique ba ba mu amee woon parole ñetti 2-1 ya. Mm. Sénégal si bëgg a football dafa am ku ma doon woo appel anonyme. Mhm. ni ma maa ci àll bi sam papa moo sam papa mooy xoowal. Mhm. benn kilifa fii ci dëkk mhm. pour Sénégal bu mu am ndam. ñetti 2-1 ngeen am yàgg naa ko wax. ci rajo pour Sénégal bu mu am ndam Sénégal bu mu am ndam. te loolu ka ko kañ moo xam ni moom la. dafa nekkoon ci ci ci yëf yi. dafa nekkoon ci yëf yi ñu nangu ko ci moom ñu ko ci moom écarté ko teg ko écarté ko muy dugg ci bi di def ay ay ay membres. jërëjëf xam nga yooyu yu ñaaw la yooyu suñ ko deful suñ ko suñ ko bàyyiwul Sénégal du avancé football bi du dem. ay xeetu wor yu doy waa sport bi du dem politique bi du dem iñaanante da ngay nekk ci benn ministère di fa liggéey ñu jëlee la fa nga iñaane ki ñu fa dekk peut-être sa wujj la ci politique parti bee la bokk nga bokk parti bee nga iñaane ko du dem. yow nga koy def ay affaires yoo xam ne ministère am du dem wala directeur société ba mu nekk du dem. loolu da nga yaakaar ne sa bopp nga moom nga yàqal. mais réew mi nga yàqal sa bopp ci boppam nga yàqal kon dégg nga foog mu janfaa yi dëgg la janfaa yi bari na taaligé comme ni kon Ndoye waxee xam nga dafa lépp nag sport bee ci gën a metti la hmm. ndax xam nga su fekkonte ne yow da ngay wor su fekkoon ne président bi wala président fédération bi wala ñi nga bokkal équipe bi rek ngay wor sax mu neex waaye yow askanu lëmm ñoo la boot nga màtt leen ndax yow soo xefee kër gi ngay dëkk askan wee koy fay hmm. oto bi ngay dawal askan wee la koy jox hmm. ci seen xaalis lañ lay fay bañ lay jox kon yow waroo benn nit mais yow askanu lëmm nga wor kon wor yi ba wor yi jeex booboo ci gën a metti xam nga dañuy wax ñu ne Sénégal jarul ñuy wuti ndam jarul ñuy wuti ndam ah kay mhm. pourtant réewu ndam lañ mhm. mais worante bi ak lu tax ñu jële ma fi mhm. problème bi nag mooy dëkk bi nañ ma baal ci waxin wi mooy ñi fi euh, wengare yu mag yëpp ji koy janax lañ yor mais janaxu dàmba ndax daf lay matt ba pare di ëf doo yëg ne mi ngi lay matt ba dangay xëy suba rek xool fi nga sa tànk rek fekk ko mu dagg kon wor boobu mooy bi nga xamante ne moo gën a metteeti mais taa ngeen xam nga nag euh, dañuy wax ñu ne mbor euh, mbër yi léeg-léeg ñu war leen waaye ñoom itam nañu xool façon war gi ñuy war ñoom itam dëgg la ndoy ubbee na ko ci bi ñuy soog a ubbi tam bi ndax da nekk mbër tàmbali di entraîner yow yoroo juróomi dërëmi fondé nit ki sàllool la chaque guddi mu jox la reer di la jëndal saabu ngay fóot say mayo di la defal lépp lépp li ngay entraîner lépp moom moo ko yor yor sa lekk yor sa naan boo xefee mu daggal la néeg ci biir këram mais bis boo commencé fayeeku 100 jëm kaw dootoo ko gis dëgg la dootu la dégg sooy génn ci kër ga sax doo ko tàggu xam nga dafa am modd wor yoo xamante ne tey ba tey mi ngi am ci comme li nga waxoon bi ñu nekkee ci wàllum yarluwaan mhm. nga ne dafa am ñoo xamante ne ñoo imposer seen bopp ci biir kër nit ki mhm. dafay am parce que dangay ñëw imposer sa bopp nit ki mu yor la mënal la di la defal lu nekk mais li ngay xool mooy naa am rek ba wan ko ginnaaw dëgg la euh, dafa dem ba dem ci artistes yi aussi nañ ma baal dëgg la parce que da ngay gis artiste boo xamante ne mënagul dara gisagul dara waxuma nag pour neexal buuba mhm. mais day ñëw ci buuba yaay sama papa yaay sama yaay ginnaaw yàlla yow laa am boo ma hmm. yóbbuwul du dem ak fi ba nga xëy nag génneel ko kaset ah bis boo ko génneelee kaset nag yaay noonam dëgg parce que nag commencé na bëggatula gis parce que ko produire bis boo lijjantee ba mu taxaw ci télé ba play back keroog ngay dee jeex na jeex na bu la rombati ne dafay jóge fii dem tukki dem mhm. ki di ko mënal ko guddil di ko bëccëgal muy ñibbi si mu jëndal ko lu mu mën mhm. jox ko ba Sénégal di ko nuyu mu di ko toraxal dëgg la mais dafa am beneen woor bu am taa diggéen bu méttee métti mhm. mooy moodu moodu yi nga xamante ne ñi ngi jóg di ñibbi Sénégal nit ki liggéey xaalisam jox la ne la soo demee demal ma sama kër joxal ma sama yaay joxal ma sama papa defal ma lii sama kër nga ñëw jël xaalis bi yow takkee ko jabar lekk ko dundalee ci sa bopp du jeex bàyyi ko moom muy taxawaalu mm. waa këram di la woon nga naan leen tey ma ñëw mm. suba ma ñëw ginnaaw suba ma ñëw da ngay da ngay changé téléphone damaa weccee koogul bi waaw waaw da ngay da ngay damaa weccee koogul li ci gën a garaaw wóor boobu daf am ñenn ñoo xam ne wóor collectif la ndax da nga ciy gis kuréel goo xamante ne ca béréb bañ nekk ñoom dañuy dajale xaalis mm-hmm. dañuy dajale xaalis ne am na kenn koo xamante ne ne que day dem Sénégal wala boo kenn kuy def conteneur dafa bëri yow su ko defee moodu moodu yëpp jël dajale jël lépp lu ñu amoon pour yóbbante Sénégal def ko mhm. ci conteneur boobu mhm. jël yow nga ñëw Sénégal wàccee conteneur boobu jox ko say jabar ak say mbokk ne sa conteneur bopp la xaalis waa tëkk ci seet xaalis ba nga xam ne ay moodu moodu joxoon nañ la ko yooyu yëpp nga lemale ko ci yow yóbbu sa bopp boîte vocale dañuy xëy rek nga toog ba defe ne yaa ngi sa donkaas gi ku nekk di la woo naan la ñu ngi lay recherché ñaati moodu moodu lañ fi recherché mhm. ñu defoon conteneur jël xaalis su seen mbokk moodu moodu yooyu yëpp ay xeetu ay wor la mhm. yoo xamante ne nekk immigré yaa ngi koy defante ak ah, ah, ah, am na ay immigré yoo xam ne fële la ñuy toll di encaissé xaalisu booy fii nii leen dama leen yóbbu nga tukki mhm. encaissé la encaissé lu ma 10 booy te duñ leen yóbbu fen dëgg la dafa am benn paquet bu garaaw bu ma leen di wax temps yii passé doon nga dégg cambriolage cambriolage yi ni woon ci dëkk bi. noonu hmm. da am sama benn xarit boo xam ne lu méttee métti métti da koo dal. parce que lu mel nan moom euh, moom soxnaam ñoo ñoo ñoo nekk ñoo bokkoon benn école. Hmm. jàngandoo bokkuñu woon classe mais waajee ko rawoon classe. waaw hmm. moo ko magoon. jàngandoo demandoo université génnandoo bokk fu ñuy liggéeyee. ba waaj a takk ko. ñett lañ woon mais kenn ku góor ki xam nga wërsëg yamul mhm. monsieur ak madame moom seen affaire baax na mhm. mais ñetteel bi ku góor ki seen xarit bi mhm. wërsëgam moom moo demewul demewul demewul noonu quoi chaque dimanche ñetteel boobu seen xarit boobu day ñëw ndekki si xam nga waxtaan ak ñoom xam nga ñëw rek affaire u xarit ba dimanche su ñëwul ndékki si kenn du ndékki dañuy toog di ko xaar tellement que dañ ko boole woon ci famille miin kër ga xam nga miin kër ga tor tor waaw li may bañ xam lépp lépp presque moom mooy su fi waa ji nekkul waa moom ci boppam mooy gérer am affaire yi buy batale këram mami. voilà hmm. léegi nag bi ñu xamul waa ji def un ñoom ñuy dem Touba puisque waajaa nga foofu defu daal ñu ko ñëwul ñu ànd ni ko samedi comme daal jeudi ñu ni ko samedi ñëwul ñu dem Touba. Hmm. bi mu xamee ne day dem Touba waaju day monsieur ak day ak seen benn doom dañuy dem Touba moom day demaale. Hmm. mu planning planifier benn affaire. ak ay ay ay gars pour que su gaa yi demee ñu cambrioler kër gi. di nga bi ñuy dem ci yoon bi nee na bi ñu demee ba croisement Cambérène femme bi wàcc di jënd crédit jëkkër ji ni ko jëndaaleel sa waay mhm. gi nga 10 000 crédit 10 000 boobu ñu ko jëndaaleel mhm. ci la doon coordonné tekk ci biir oto bi leen coordonné da doon coordonné cambriolage seen kër waaw non génnaguñu génnagu man maa ngi nii damay dem Touba ak sama gars yi génnaguñu Dakar maa ngi tollu jam ñaajo voilà voilà léegi génn génn nañ ñoo ngi nii dem pour que pour wax gars yi que mën nañoo dem mais dañoo femme bi nee na ma laaluñu biir ni néegu xale yi directement biir néegam lañ dugg lépp luy bijou lépp luy xaalis lépp lu lu am valeur lu ñu bàyyi woon foofu yëpp gars yi dañ koo jël li yëpp yóbbu. te mu te mais bi enquête bi toppee bi ñu toppee enquête bi ci téléphone yi lañ ko jàppee téléphone u jëkkëram téléphone ak téléphone ki ñu àndaloon. yi topp di enquête di enquête ba jàpp ba jàpp ba jàpp waa ji. Hmm. mais ni bi ñu jàppee waa moom ndaw si ak jëkkër ji ñëw gëm ni nit kooku moo leen def loolu. dëgg la te ñu ci bari ñu ngi réerle ay bijou di réer la ay portable di réer la fekk ka leen ko def mais ki leen ko def mi ngi mi ngi seen wet am na ci ñoo xam ne seen jëkkër la am na ci ñoo xam ne seen xarit jëkkër la surtout léegi jëkkër ah, xam nga dafa doy waar tey mu neex tey foire bi neex euh, ta dégg temps yee passé daf fi am soxna su réer la woon or bu bari waaw ca Maris yaakaar naa Sénégal gépp déggoon nañ ko jërëjëf bi enquête bi teeree yaakaar naa ne fa mu fa mu sës metti na torop torop metti na ndax xam nga nag Euh, taa dégg dama lay faral di wax semaine bi yëpp naan la xaj lu mu mën a mën a màtt war naa bàyyi buum gi ci baatam ah! ndax nag damaa yaakaar ne tàkku saani alxayri ak kilo guro nga nekk nit ki ci benn néeg ngeen bokk ci di fanaan amul benn pexe bu muy def bu dul di la saaj te taa dégg mi ngi bëgg bari nag mi ngi bëgg a bari de daf ci am nag ñoo xam ne ay mbañu ruus lañ du ñu wax mukk que ne sama jëkkër ji ma nekk la ma saaj wala suñu demee ba enquête bi mu wóor leen da ngay dëkkal sa jëkkër mu lay sàcc sax doo ko mën a waxee fenn bu leen wóoree ne bi seen jëkkër la nar a laal sax ñu arrêté ko mais jéeg ji fii réer la parce que ndaw si immigré la woon moo tax dafa am boobu ba tey day dellu si ci xeetu boot nit mu màttal ak planifié woo ki nga xam ne day dem takk jabaru immigré mhm. sukkandiku ci alalam mhm. fas yéene ko dóor matt mhm. gis nga dóor marto bi bu kooku sàcc bi ci la lënkaloo ak beneen jigéen dóor ko marto mais pour te dire que xeetu woor yi dafa bëri ni nga xam ne noonu la jigéen di xëyee gis Modou Modou boo xamante ne nee na daf ko bëgg mu ciy planifier dugg fa te xam na ne su naan cëpp aéroport ne ko eh ani yow ani man xam nga amaana sax waa ji sax du ko gis waxoon naa la ka nga xam ne dafa defoon ndaw si jëlul vol noonu tamit ngay gisee góor goo xamante ne day planifier gis jigéenu immigré yor alal yor këyit yor yooyu yëpp ñëw vacances Sénégal wala dara ñu fas yéene ci def àddina ak li ci biir pour dugg ci mhm. fekk ne laluñu ci lu dul sàcc ko wala jaafaan ko wala boog am ci këyit wala boo génnee ma dëkk bi mhm. dañ dem ba nga xam ne ya jigéen doon def par intérêt léegi góor ñi ñoo ko dëgg la dafa benn waay boo xamante ne soxnaam commerçante la mais moom xam nga fu muy lijjante ay labatam ci marchandise mi soxna si di jaay conteneur bu soxna si wàcce daal dina ci sàcc lu ëpp fukki paquet dina sàcc tuusi dina sàcc greffage dina sàcc maquillage dina sàcc lépp xam nga kan la koy jox mm. ki muy ngorawanteel lay dem di yóbbu loolu kooku day sol bay maye di jaay xam nga kooku mi ngi wor soxnaam ndax yow jigéen ji nga xamante ne bana la fi dem si nag na mu méttee Dubaay ak na mu méttee nga ngart ngart ngart ba indi sa conteneur wàcce chaque jour nga réel la dara kañ nga koy ji kala waroon jox jox la di la sàcc ki waroon a xëy ñëw tey ànd ak yow di la calculer le mm-hmm. te tey boo réerle woon moo lay wërle xam nga lan moo metti taa digal mooy que sàcc yooyu li tax muy muy metti mooy ki nga xam ne tey boo réerlee mooy xëy fajarteel ànd ak yow ah. nañ dem ca géndal ga ah. nañ dem ca maamën ba lii kay dina feeñ ki la sàcc war la woon sàcc ah. te fekk ne moom mooy sàcc bi nga xamante ne moo la sàcc ku ko jàpp jàpp sàcc ku ko jàpp jàpp sàcc ku ko bàyyi bàyyi sàcc mais nag xam nga sàccu ndëkkaale dafa neexu te wër ba mu feeñ dëgg la mais dafa am beneen boo xamante ne tamit léegi mi ngi xew ci réew mi ci wor yi ci wor yi hmm. mooy que comme ni ko ndoy di waxee da ngay jële gone ca dëkk ba indi ko fii ne kii sama doomu càmmiñ la wala kii sama doomu mag la wala kii sama doomu leneen la nga indi ko sa biir xale bi xam nga ne yow amul benn xel nga nekk ci di jàpp di lijjanti di defar di yóbbu école di fay muy jàng di dem ak a ñëw xale boobu taa dégg après noon bi mu lay def. Hmm. laa mënul xam man ci lan la koy teg. kooku wor bi mu lay wor moo gën a ñaaw ndax xam nga lu tax loo musul def dina la ko jiiñ loo musul wax dina la ko wax loo. foo musul dem dina la fa yóbbu. sa ay noon lay jël def leen xaritu. benn bakkan la di ànd ak ñoom di toog sa buntu kër. di la sosal ndax dafa am benn femme bu ne ma. moom li tas sëyam nee na ci xale bi mu yor la jóge parce que xale bi mooy bind ay lettre anonyme di ko surxal ci oto jëkkër ji ko takk xoolal yi pexe jënd puce boo xamante ne da koy fay su nekkee ci biir kër gi mais téléphone bi leen rek la ciy liggéey mooy woo jëkkër ji ne ko ba nga xam fu sa jabar nekk demal wëri ko taxawaaloo jétti na day ànd ak ndaw si ñu dem ba marché mu woo ko téléphone ne ko ñi ngi sëriñ tel sa jëkkër sa jabar ak lay liggéey ba nga xam ne dafa dem ban waa ji dafa mujj ñàkk confiance ci ndaw si ba ñoom ñaar mënatuñ dëkk te ndekete yote xale bi mu yor naan doomu càmmiñam la kookoo ko koy def taal dégg nga lii te mu ngi ci kër gi te mu ngi ci biir kër gi moo koy dundal moo koy woo loolu laa la wax moo lay daggal tissu moo lay solal moo lay defal ngalam ne xam nga nee naa ne ne yaa ko yor mu ne ci xam nga mu màtt la boobu dafa metti dafa metti jigéen ñi dañuy wut jëkkëru prêt góor ñi tamit di wut jabaru luy luy jëkkëru prêt-à-porter ak jabaru prêt-à-porter mooy koo xam da nga ko feetu mu sotti am na léppam dëgg la am na léppam nga def ay enquête ba xam ko dugg ci moom dóor ko dëgg la génnaat wor ko génnaat dëgg la comprendre nga wala nga ni koy waree mooy su fekkee góor ñi dañuy fexe xam say terrain jël say say kër changé ko say bien lekk la ba nga set huit ba pare changer numéro genre goor yooyu ay numéro téléphone yu bari la ñuy la dëgg la am na ci jigéen ñoo xam ne tamit dañ lay jàng ba xam ne yow mii kooku sotti nga am nga entreprise am nga teraanga ñu dugg ci yow hmm. nga takk leen ñu tas sa mbokk séparé la ak say say say mbokk ba hmm, pare hmm. lekk sa xaalis soo feebaree yàlla boo feebar wala dara jot la ñu daal di roccee ko dem sa yoon wor bi ci gën a garaw mooy jóor ñi nga jigéen ñi nga xam dañuy fekk seen jëkkër ca kaw lalu hôpital ba di ko ñaan baat ou bien ñoom nekk ca kaw lalu hôpital ba am na paa yoo xam ne dañuy feebar presque plus de dix mais dama lay jox foofu lu gën a neex. waaw da wóor bi mu ngi tàmbalee ci li lay yóbbu ci hôpital ba ñoom ñoo la koy def. waaw am na ay jigéen yoo xamante ne ne la ndaajo la la alaaji doon wax noob fanaan. waaw wala li li mami di wax dëbbal la xottu butéel. am façon yooyu. Mhm. daf ci am ñenn ñoo xamante ne dañuy ñëw sëyal la fekk na sa alal la ñu soxla te itamit ala kulli xaal foog ñu dëj la. te liñ lay dëjee ak la lay tëddal ci lalu hôpital ba ñu nga dëkk ak yow waaye ñoom ñoo koy def mhm. waaw ci jox la ay xeetu ay garab wala boog su fekkente ne xam nañu xorom lañ lay tere lu ñu lu ñu kii xorom la ñu xamee ni suukar la wala boog ñu def la ay xeetu ay liggéey ak ay roof déedéet ak ay xeetu ay yi la sa santé di bañ waaw sa sante li muy bañ ci wàllu ay garab sax am na ci ñoo xam ne daf leen di jaral ba nga xam ne dinañ la jox ay xeetu garab yoo xam ne dañ koy dëbb di ko defak ak yooyu yëpp daal ba nga tëdd hôpital laaxu dëbëra ngóob lañ lay defal defal la ci xottu butéel laaxu dëbëra ngóob dëbëra ngóob moo boo ko doree ci seetu mu toj moom lañ lay waaw moom lañ lay defal defal la ci ruuyu xottu a jëf gis nga xottu butéel lañ lay walal ba mu nooy ñu tamiser ko defal la ko ci biir ruuy bi nga naan du sekki du def leneen te xam nga léegi dafa am dee yoo xam ne jarul autopsie dëgg la dëgg la loolu nag moo lay tëddoon ñu fekk la fa duñ la ñaan kii da dañuy xaar ñu jekkali la uh-huh. yooyu ay xeetu war yu doy waar mais mais nee naa la am na ci ñoo xam ni euh, dañuy def li ñuy def ba seen jëkkër faatu ci biir néeg dëgg la ñu daaj armoire ba daaj condamné bagage su paa duñu annoncé gum décès bi duñ ko annoncé gum li paa bi am lu baax lépp ñu ñëw denc koo pare préparé jooy. dëgg la wooy di xam nga. fekk na waa ji gaañu na ca xaaju guddi ñu ñu bàyyi ba suba ñu ñu doog a. ñu doog a annoncé. ñu am taawu fuye. waaw fekk këyitu kër ga denc nañ ko xaalis bi paa bi li mu jotoon a am carte jabam compte ba lépp jël nañ ko ba denc ko ba pare du te dañ ciy ànd ak seen yaay wala seen tante wala kenn koo xam ne moom mooy nekk seen complice loolu même su nit nit a ngi ci bàmmeel ñu wor ko. wor bi mooy manga nga ca bàmmeel ba bàyyi fi bàyyi fi alal. wax nga dëgg fareeram tëdd ci alal ji wax nga dëgg wax nga dëgg. ah mooy lekk alalu jirim ji rek. nee naa la fi keroog da ngay gis nit koo xam ne ay doomam ay xale lañu mu yor teraanga doom yi mënuguñoo di bénéficier wu ci seen alalu bàyyi mu yor ay rakkam yor ay jarbaatam yor ay magam yor ñëpp di leen defal ñooñu ñoo am chance bénéficier wu ci alal ji mi ubbiloon na ay compte ay doomam def ko ci banque bi yàlla def mu mu génn àdduna. bàyyi fi frère am magam wala rakkam wala akum ndijaayam ni ko yoral ma njaboot gi am nañu compte ca banque ba léegi lii daal di faatu seen ndijaay lekk alal ja seen mag lekk alal ja wala seen yaay lekk alal ja ñaata femme la fi seen jëkkër faatu bàyyi fi alal ak seen waa kër alal ak kër ñu jël alal ja dem di ko di ca toppatooyee beneen góor bàyyi njaboot gi nga xam ni seen bàyyi moom moom xam nga euh, moo tax loolu war la moo tax ndoy baan mhm. baax na nit ñi xam ci bi ñuy dund mhm. nañuy bàyyi xel ci dunguru yi waaye tamit nañuy bàyyi xel ci ci ci li xew mhm. maanaam dañu toll jamono joo xamante ne ginnaaw euh, kat yaa ngiy wax mhm. rajo yooyu télé ñëpp ngay wax baax na ñu bàyyi affaire ay prête-nom yi nga xam ne moom lañ daan def mhm. xeetu prête-nom yi nga xam voilà prête-nom fu mu nekk nii dañuy toll jamono joo xam ne kenn waratu ko def yaa xam na ak ki nga koy defal muy sa meen muy sa gaño muy ku mu mën a doon parce que dem nañu ba nga xamante ne ne que prête yi lëmbee na réew mi ba nga xamante ne ku ci mënoon dee dekki nee naa la di nga fekk sa mag moo xam ne yéen a bokk ndey ak baay ngeen bokk ma wala nga fàdd ko daal di dem tëddaat parce que bi ngay dund wóoluwoo sa jabar nañu wóolu jigéen ñi xam nga dafay am lu bëri loo xam ne mami góor ñi ñoo ko teg parce que jigéen joo xamante ne yaa ngi sëy ak moom ci farate yàlla ak sunna si Muhammad mais danga koy wóolu ñàkk ko wóolu nag mooy tax deewin yi ak coow lii di bëri mhm. parce que dem wóolu keneen koo xamante ne nee nga sa xaritu benn bakkan la nee nga sa mag la nee nga sa rakk la mooy indi yenn xeetu problème mais jigéen mais ki nga xam ne yaa ngi takk ak yaa ngi fi nga àgg ak moom mënoo fa àgg ak yaay mënoo fa àgg ak papa kooku soo ko wóolul def nga erreur. Mhm. xam nga dafa am lenn loo xamante ne ku ko fi def rek gis ko ndax jamono ji moo tëddee noonu jaafa yi da nga bàyyi sa jabar di sëy ak moom ci farataalu sunna sa Muhammad du la xamal dara du la xamal dara dara dara du xam ne am nga kaas du xam ne am nga lii du xam ne nga dem tànn sa xaritu benn bakken kooku nga xam ne jamono ji ngay dund xelam mu ngi ci sa jabar mhm. nekk ci alal gi nga yor su dee sa frère la xelam mu ngi ci sa jabar mu ngi ci alal bi nga yor nga xëy suba guddee àll mu récupérer sa jabar jël alal ji toog ci ne moo ko ma mën kenn koo xam ne taayale day di ay otoog di maye ay teraanga gu dul ne moomu ko mhm. fekk ne alalu jirim la kon nag baax na góor ñi ñuy déglu ak ñiñ ko sañ a wax ñu defaraat seen toogaay dëgg la ku ñaane sa doone saw deewin ñaaw mhm. tey xam nga mooy li ma la waxoon keroog fële ca télé ba rek nee la woon dafa am yoo xamante ne ko bokk ak nit bul bëgg nit ki ba muy door doomam nga sotle ko bul dénkaane sa poos bul dénkaane sa jabar yooyu ku ci nekk jéem koo téyel sa bopp mais taa diggen bàyyi jiit lay ñi ngi war doom yi war yu metti ci nag mooy que da ngay nekk sa yaay sa papa teel a génn àdduna wala sa yaay teel a tàggoo mm-hmm. am beneen borom kër yàlla def ngay gone teel a sotti nga yor sa alal sa yaay ne la su ma sañoon sa baayu jiitle bi ci biir kër gi kenn du xam ne juru la su ma sañoon sa baayu jiitle bi du toog ci biir kër gi nga yor sa alal di ko jox ay jàmbur kon teewoon ngaa jël sa baayu jiitle bi teg ko fii nii mu nekk fi yoral la fi say matériel nga jël yaa xam transport ngay def yaa xam dangaa yor say kër yaa xam da ngay tabax yaa xam lépp loo mën def yaa xam da ngaa ubbi ay boutique loo mën di def nga jël sa baayu jiitle boobu teg ci kanam na la wóor na yàgg yàgg yàgg ak baayu jiit la yi ma ko sañ a wax dina la dëbb linjaa dëgg parce que loolu moo ko tax a jóg moom dëbb linjaa moo tax mu ñëw ci kër gi kon moom yàgg yàgg yàgg dina la dëbb linjaa mais am na tamit beneen wor boo xamante ne yaay yi ñoo koy war doom yi ndax it loo bëgg-bëgg sa borom kër bu mu la gënal sa doom ji nga jóg ndax doom ji nga xamante ne moomoom alalam nga gis ko muy pasar pasare sa alali doom nga ànd ci ak moom nopp ci ndax naan kii sama borom kër la bëgguma sama sëy bëri na fi na la wóor na su ëllëgee sa doom yaa ko ñoom ñoo war seen i doom am na fi ay yaay yoo xam ne ñoo euh, doom yi la dañ koy lekk jox ko góor mu lekk leleen ko sax doom bi nga xamante ne tey dafa ñëw yor ndonoom nga yor ci sa sumbul bu la neexee yow nga jël ko tey jox ko góor mu lekk ko mm-hmm. mais xam nga doom ji nga xam ne dafa dem ba màgg taa dégg dem wuuti ñëw indi nga ne ko jëlal sa bàyyi jiitle bi teg fa mu géré bàyyi jiitle ba xëy këpp kees ga nga ne ko déedéet bañum rus la am na loo xamante ne bëgguma ma siiw te fekk ne paaba da koo takkee jabar wala da koo wër di ko may gone jigéen ñu ndaw yi loolu tam xam nga ne dóor li njaabu métti la gone nga commencé waat à zéro di demaat di wutiwaat lu mu am te bàyyi jiitle boobu mën na dégg ex parce que jëkkër moom heure bu ko neexee bu dem mais xam nga doom ji nga jur mais taa dégg dama gis beneen wor bu gën a garaaw bu gën a garaaw jigéen ñi di woo seen doom yi waaw di ko di ko di ko jox ay ñoom ndoy baan ñu lekk ko ci alalu jigéen waa boobu boobu ndoy baan doo ci xuus ta taa dégg kii dafay drogué jëkkëram di ko signaloo ay kayit drogué jëkkëram di ko signaloo ay kayit mami indi nga paquet jëkkër ji di signé rek di dem bu koy mandiloo di ko signalé ay kayit di signé rek di dem te yor na lu ne mais kooku mooy nekk koo xamante ne ëllëg si biir su fi jógee doom ya mu jur duñu gis dara ndax kayit yëpp ñu ngi koy signé muy dem boobu yaakaar naa ne ci woor yi gën a mag la parce que kooku su xëyee du xam sax li mu def lan la ngay ubbi sa coffre yow muy signé rek ngay jël di denc te fii la xewee fii ci Sénégal lépp a ngi fi kon doy waar lu doy la lépp a xam nga ne nga fi woon dafa am yaayoo xam ne soo soo soo sañoon duñ la jur wax nga ko fi keroog soo ya amee yaayu dealer dafa am ay ñoo xam dañoo am ay yaay yoo xam ne dañuy ay tekkatu deal lañu tekkatu plan dëgg la dañuy xëy suba ba ngoon jot di plan tekkatu plan boo gis warkat la teg sa ñetti doom jigéen ña ngay sëy heure boo xëyee yaa ngi sa téléphone ah di teg ay plan plan yoo xam ni baaxul ci yow mi koy teg baaxul ci say doom baaxul ci seen jëkkër baaxul ci kenn xam nañu nit yaay yor ay doom ñuy sëy nga leen di woo di leen conseiller di leen teg teg ci yoon wu baax defal nii sa goro lii sa jëkkër lii di leen teg ay may yow lu bon rek nga leen di digal. waaw xew nga nekk Kër Massar. fa xew fexeel ba teg ci loxo su dimanche ñu ànd dem te sunu sama paa sama paa ba. am na sunguf soo xam ne soo ko suyee ca terrain ba yàgg-yàgg terrain ba ci sa kër lay ci sa loxo lay ñëw. dëgg la sa wujj bi bu mu la def lii. waxu ñaaw yooyu bépp maire boo xam ne yaa ngi koy digal say doom warkat nga tekkatu dil nga te li ngay ki ngay war mooy sa sa doom te bala ngay xam ne sa doom yi bala muy comprendre. fekk mi nga teg nga ko ay coono nekk na ci ay ay ay ay ay tolof tolof yoo xam ne taximaan yi ngay gis ñu ngi may seetaan garage yi dañuy warante de ci naka ni ñuy warante mooy dañ lay gis nga am xam nga day am ay siiru maan mm-hmm. ma yor sama taxi doon ñuy jël ma fenn ma fay liggéey ma nekk si si ma na ma nekk si siiru maan mm-hmm. yow siirumaan bi fexe ngaa fexe fexe fexe ba xam borom taxi bi mm-hmm. dem ca borom taxi ba sa daal du liggéey heure bu ci nekk mi ngi ci restaurant yi mi ngi ci kër gël yi mi ngi ci boîte de nuit topp di ko wax di ko wax ba waaja nangu taxi ba ñëw jox la ko suuri fiirman loolu taximaan yi dañuy dund bari bari taximaan yi dañoo warante ci jël client yi rek ci kaw tali bi dëgg la dëgg la yow taximaan nga muy taximaan ku nekk sa wërsëg lay jël gis nga ko gis nga kenn di arrêté benn taxi looy fa rërëri pour doubler ko pour njëkk ko ca client ba te kii euh, kii nga kii mi ngi wax ak kële wala taximaan bi nit kaa ngi wax ak euh, benn taxi yow maan nga nekk ci ginnaaw nga gaare ci ginnaaw di xaar di ñaan yàlla pour ko mu ñoom ñaar ñu waaw waaw waaw ba nga jël ko pour nga kii loolu nit ku nit ku baax dëgg baax du ko def dañu dem ba xam ne maanaam xeetu warante bi xeetu jaafa xeetu boot nit mu matt la bàyyiwul fenn waaye dama bëgg ñu dellu siwaat ci biir sëy yi ndooyu baan waaw ndax euh, xam nga amul defe naa ne yëpp metti na waaye bi gën a metti mooy ki nga xamante ne da nga ko wóolu te ngeen di ay woy dencante li ma mi wax léegi daf ma yëngal parce que ki nga xamante ne ne fekk nga euh, euh, euh, teg nga sa jëkkër di ko jox ñoll pour que mu nekk ci état mandité nga koy signaloo ay kayit dafa ma yéem waaye dañu dem ba nga xam ne ne dëkk bi loo ne amul rek da ngay naan gisuma ko waaye loo xalaat rek nit a koy nas te lu ci ëpp yii nii dañ dafa am ñenn ñoo xam ne danañ dem ba di ko def en complicité ak doomu borom kër waaw waaw doomu borom kër gi dalaa wax ndax da nga ciy gis kenn koo xamante ne ne day ñëw fekk fa doomu jiit leen doomu le boo xamante ne ne ko jubóowul ak baayam nga ñëw fexe yow ba def ko sa doomu bopp xëcc ko sa bopp te li koy xëcc sa bopp di nga fexe ci sa ay pexe zaayiran wa baati nag ba ngeen ànd yéen ci plan borom kër gi yaa xam xeetu plan bi nga xam ne yaa ngi waaye daal xale bi moom en na papaam parce que jàpp na ni moo naroon tukki boobu ba léegi te papa ji taxul mu tukki jàpp na ni li mu naroon am yëpp papa me ko xañ léegi nag yow ak sa yaay jiite naka ngeen di def pour cambrioler pa bi ci kër gi xanaa xamoo wóor mënut a weesu nga yor sa doom mu xam sa denc ci kër gi nga xëy suba tukki wala dara sa propre doom tijji sa koofar sàcc ci loo xamante ne dina tax dootoo jugati abadan daayi man xale yaa nga koy def di tukki di bàyyi seen papa kon xale yooyu su fekkente ne dem nañu ba fegoo ak seen propre ndeyu jiitle pour di def ay coup léeg-léeg nga gis ci ndeyu jiitle yoo xamante ne nekk ak ay doomu jiitle yoo xam ne dañuy dem sax ba di ngoro te paa bee nga nekk ci kër gi mm-hmm. xoolal loolu xoolal yooyu yeetu xeetu bon bon yooyu nga xamante ne. dëgg la jiit euh, ndeyu jiitle. Mhm. ak doomu jiitle di ngoro. te paa bi nekk ci kër gi. xam nga sous prétexte que dañoo tolloo wala seen at yi. Mhm. amul différence yooyu da koy gis. Mhm. ay xeetu bon bon yoo xamante ne dafa am ci biir. dinaa la won benn message léegi suñu posé xale bu góor bi nee na ma baan man sama ñaareelu papa moom ma nekk di ma harcelé harcèlement bu bu doy waar ba filmé nii dama bëgg a génn kër gi loolu. nee naa ko soo kooku sax dafa baax bëgg génn waaye am na ñoo dañ cay ne waaw dañ ciy nekk nee naa soo ci duggee da nga war sa baay te sa sox sa soxna sa baay soosu mi ngi mi sa baay fexe koo piégé ba am ci ay preuve nga tegal ko sa papa mais gis nga xale yooyu ci bëri waaw wor baay bi la ñuy gën a def xam nga lu tax mhm. ndax wujj wa nga xam ne dañ koy takk bu indi déranger seen yaay wala déménager loo seen yaay pour ñoom forme revanche la que ndeyu jiitle boobu nga xam ne mu ngi leen di cherché ñoom ñu cherché ko ba def nii te papa ji nekk ci kër gi. waaw loolu am la. bëri na ñoo xamante ne dañ koy dund de. duñ la ko bari na bari na ma bari na ah. loolu koy sooy. même jarbaat yi. waaw xam nga doom sax kii nag. dina ci kër yi jarbaat bi nga xam ne dafa nekk kër kër kër ndijaayam ndijaayam yor ko wutul ko boutique wutul ko métier <coughs> dugal ko daal ba nga xam ne toog toog ba nga xam ne ñeewul kenn sa jabaru di jaay di la di la di la di la di la sàkku. yàgg nga dégg ma ma koy wax waa ji ci boppam dafa dem dafa dem ba ba mujj sédde génn kër gi sédde na ndaw si am na ko amaat ko mais dafa xam ne ni lii di wëy man ko soo génnul kër gi di nga problème ngay ngay mujj am ñaari tàcc yu jigéen xajul ci góor bis bu ci doyalee dina la tàcc. ci su mais kan moo ci am sama borom. ah dama lay jël dama lay jëlaat wor nekk ak sab aaw ba dara dul dara mu di la muñal ba nga xëy bëgg alal ju leewul tax nga dem sacrifier sab aaw dëgg la fétiche ko am na fi ñoo xamante ne fétiche ko mu tëdd nga war sab mu tëdd que bu tëddee da leen di sonal dëgg la dañ lay yóbbu ci gars yi kay maaman yi kay rendim xar maanaam kooku su waxee ne lii bakken la laaj nga ne ko sama aawo gi euh, am na fi am euh, am na fi wutkatu alal yu bari yoo xamante ne da nga yóbbu am xar dëgg la xar mi nag boo koy rendi loo gis da du tee da ngay rendi bu fekkee bëgg nga mm. ci baree bari bi ñuy rey wóor leen ne seenu aawo lañ di ko rey lan moo gën a nekk loolu wor mu dem alal ji tuuru loolu wor la da bëgg a nit ki linjaa mais am na fi ñoo xamante ne ñoo sacrifié seeni doom ba tey seen doom ay sàcc lañ wala seeni doom ay defkatu leneen lañ ña nga ca ànd ak ñoom wala juddu duñ nit mais war nañ seen ndey juddu juddu sax duñ nekk nit que nit ki nga xamante ne moo ëmb doomam juróom ñeenti weer benn bis dikk xaw ko rey mu dem hôpital matu ñëw nga néega a dem ci maaman wala dóor katu matu sacrifié doom jooju yow pour tey doom jooju apporter la alal nga wëlbati ko di ko gis mu ànd ak ndayam loolu lu mu métti métti métti na la wóor na yow war nga àdduna war nga àllaaxira parce que yàlla bi mu lay may doom ji neewu la woon pour nga sacrifier ko nga toog ba bis ñëw nga sacrifier sa aaw nag bëgg alal te du fi jeex fii la xëy jërëjëf jërëjëf euh, am na doom nu muy waree ay waajuram doom surtout doom ju jigéen ji ak doom ju góor surtout damay njëkk ci doom ju jigéen ji nga am baay bu baax bu exemplaire koñ bi yëpp respecté respecté ko dëkk bi yëpp respecté ko xam ko ci diine ci liggéey dem ñëw ngam yaay joo xam ne ñëpp royukaay la ñu nekk ci koñ bi ñëpp respecté leen nga judd ca nekk ci koñ bi ñu teg la ci yoon di la yar di la xamal lu baax di la xamal lu bon nga génn ca biti faye sa bopp ba ëmb fa loolu war nga say waajur ndax seetaanun la yar nan la teg nañ la fan la war a teg manqué woo dara li naan namoo dara manqué woo dara lépp looy wuti ci biti am na ci biir kër gi jàng teg nañ la ci diine sa baay ak sa yaay gisoo benn yoon ñuy def dara lu bon di gisoo ñuy def dara lu ñàkk fayda yow nga génn ci biti di def lu ñàkk fayda ba ba ba ba di di sa bopp ba yenn di la dal loolu jigéen bu ko def xale bu jigéen bu ko def war nga say waajur beneen bi mooy nga ñaari waajur yooyu ma lay wax yu mel noonu ngay góor génn ci biti tux baa nga fi nekkee naan sàngara sàcc fu oto police gaaree sa yaay fitoo tëb ni tëb loolu góor bu koy def xale boo góor bu koy def yaa nga wor sa baay di wor sa yaay di wor saw askan côté boobu xale yi laay waxal xale yi xale yi ci boppam laay waxal xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi mën nañu topp àdduna bi nii rek seebeeg yooyu noonu mais toujours nañuy sóor nit ku baax day sóor yaayam ak baayam su fekkee dañ ni ñu mel ci dëkk bi fexeel ba bu leen toroxal fexe ba bu leen rusloo fexeel ba bu leen wor ci kanamu askan wi ci kanamu famille yi parce que surtout ko jigéen ka yaay ja ca boppam mooy paye les pots cassés dañ naan xamoon nañ ko waaw li mu doon def dund ko li muy yaroo ni lu tax yarewu ko ay doomam affaire yooyu loolu lu ñaaw la nit ku baax day sagal ay waajuram nit ku baax day day siggil ay waajuram siggil say waajur nag mu euh, toroxal say waajur wala euh, wala war leen mënul weesu nga doon gone gu góor fun ne sàcce yi wub sàcce yi yow la ñuy xalaat fu ne fu ne yamba yow la ñuy xalaat fu ne drogue yow la ñuy xalaat muy ci jigéen ñi tamit li li jigéen ñi di def li góor ñi def jigéen ñi dañ koy def jigéen ñi dañuy sàcc di tuxi boon di naan di jaay drogue léegi képp képp ku koy def da nga yor yaay ju baax yaa ngi koy teg gàcca di ko toroxal ci digg te loolu ku ko def rek sa yaay boot na la nga màtt ko jam koy paaka yi ginnaaw dëgg la jam koy paaka yi gannaaw mais balaa ñuy dem fenn di leen fàttali ne ñu ngi en direct depuis la foire internationale de Dakar ñu ngi fii ah groupe Futur Média ah suñuy lecteur ñi ñuy liir nee naa ñi ñuy seetaan ñi ñuy déglu fatabakalla macha allah ànd bégal leen waaye xam ngeen ni GFM est en fête le groupe Futur Média est en fête ba tax xam ngeen ni 300 mille francs ñu ngi euh, mën ngeen ko gagné yow mi toog di déglu yow mi toog di seetaan ah mën nga gagné cent mille francs ñuy tànn ñetti personne par semaine muy 900 000 francs yoo xam ne dañ leen di ko jagleel 14 millions lañ jël enveloppe bu 14 millions groupe Futur Média nekk en fête ñu fas yéene leen bégal yemuñu foofu am nañu ñaari oto yu am solo yoo xam ne gis ngeen ko ci télé bi benn Dodge ah boo xamante ne euh, chargeur oto américaine bu am solo yemuñu foofu am na benn Ford Mustang boo xamante tamit da ngeen di ko gañe yéen lañ ko jagleel yemuñu foofu am nañu ay euh, bon d'achat ci Thiané Diagne jour J valeur bu cent vingt cinq mille francs yemuñu foofu de ndax tamit am nañu ay bon d'achat chez Palens yoo xamante ne tamit valeur u cent mille francs waaye tamit ay week-end de rêve chez Framissima Palm Beach Hotel yooyu yëpp na groupe Futur Média est fête ñu jagleel leen ko bëgg ngeen bëgg fatubaakàlla macha allah li geen di def envoyé leen SMS ngeen bind fête FETE ngeen envoyé ko 26 444 26 444 wala boog nga woote ci 88 628 14 14 88 628 14 14 wala 88 628 65 65. yooyu yëpp nag jàpp leen ko bu baax ay numéro yi ngeen xam ne ci ngeen di ànd ak ñun ndax le groupe Futur Média euh, est en fait kon nag nañ dem publicité dellu si léegi léegi ah ñu dem dellu si léegi léegi. ndax laajoo ma ku ma musa wor. kan moo la musa wor. mi nga xam ne dama ne ko juboo nañ bañ juboo mu xëy wor ma. sama baay Cheikh sama baay Cheikh du waraate. tey wor na ma de naaw dama jaxat nañ dem nañ dem dellu si kooku du waraate nañ dem léegi publicité dellu si ci kàttanu yàlla. jërëjëf euh, mbokk téléspectateurs yi am mbégte nag dellu seeg yéen en direct de la foire internationale de Dakar le 6S ah ñu toog fii euh, di nuyu soxna Soda Ba ma nekk ca Caaroy Azur ah maamu laama <laughs> yaayu Fatima ñu ngi kontaan ci moom sama bàjjan Adja Sofi Seck duuta nee na li mu li mu bëgg a wax uh-huh. paquet bi mu am nen du ma ko jox nee na yow la koy jox bu ma paree woo ah, waaw waaw appel nga kooku parce que neen dafa am paquet ci lii te yow la koy jox xam nga man ay paquet rek laay wër man loolu ma jaaxal man joxuma paquet de waaye nag xam nga ni ne damay nuyu euh, Marie Bane xam nga sama yekk boobu ndekete moom xam na suufu pont wu Colobane man de emewu ma ndax yii xeetu pigeon yii xeetu lëg yii xeetu bagage bii yekk bu rëy ba pare nag ànd ak bébé faa bébé faa moo ma koy indi bébé faa moom ndoy baan ak bébé faa ñoo may indi man de dañ ma caa dëbb li euh, kon nag yow amoo jabar soxna nga yoraa kontaan naa ci moom dégg nga ba tey rek ñu dellu si ci façon wan rek boot nit mu mat ah biir bi man maa ngi doog a xam nag biiru ndoy baan bi ne du biiru ay n'importe quoi <laughs> ba tey kon ma euh, euh, mami fasal wala boot nit mu matt la waa xam nga mbir mi chaque jour boo ne fii lay yem da ngay gis yeneen yu gën a garaawati yu gën a ti garaaw parce que taa dégg benn benn benn mënul gën a garaaw xale yu jigéen yi ndooy sobeel xale yu jigéen yi am nañ problème xam nga xale jigéen dañuy def ku lang ñu ne sama xarit la ku lang rek ku turne rek ñu ne sama xarit la nga jël nit ki nga ne yow sama xarit la ngay ànd moom taa dégg soo amee ñaari tubay jox ko benn parce que xale jigéen il faut ñu dimbali leen pour ñu xam lan mooy xaritoo ak jigéen fan la war a yem ci àndam dëgg la soo amee ñaari tubay jox ko benn bi soo amee ñaari oo jox ko benn bi dëgg foo jëm mu topp la xale jigéen ñi xanaa xale jigéen ñi di dund ci sa wërsëg oto bi lay yóbbu sax moo leen di yóbbu dëgg la te xam nga àndub xale bu jigéen dafa am yu baree baree bare yu ciy laxasu ndax ndox daf ci dul ñàkk dëgg la dañuy jekki-jekki àdduna fëkk leen ñu yaakaar ne xëy na tey bu asamaan si doon daanu bu ñu joxe ñee mu taxaw nga dem ba ci biir ndog dal la nga wan caw lor wala leneen fekk la dëgg la lu mu mën di doon ak lu mu métti métti na xale jigéen yi di dem di wax ak seen ndey yi te xam ne seen ndey yi duñu leen boot mukk di leen màtt dëgg la mais nga dem ànd ak sab xarit ànd ak moom dem naan diw mooy sama xarit wala nga ànd ak moom dem ci feneen yéen xam fu ngeen ko yàqe jee ngeen yàq biir ñëw toog nga tëdd ñetti fan ñaari fan jóg ne yaa ngay doxi say soxla yaakaar ne sa secret nëbbal nañ la ko wala nga naan ki ma ko wax sama xarit benn bakkan dara dëgg la dëgg la dem foowee ji sa bopp ñëw nettali ko sa xarit dañu koy moytu bàkkaar kenn du ko wutal seede bu ñu mënta bañ a def nañ def li ñuy def xarit boobu mooy toog ba ëllëg ngalt ngalt am wala ngaan koo am xam nga bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk mais dañuy laalan dëgg la kooku bu benn problème bu ndaw amee li muy njëkk wax mooy su ma la waxalee li ma la xam àdduna tey tey tey tey su ma la waxalee tey li ma la xamal c'est-à-dire li ma la xamal su ma la waxalee même boo waxulee. waaw même li nga wax su garaawulee. wax nga wax nga ba noppi ñëpp a ngi xaar. dëgg la parce que li ma la xamal soo ko waxee ci ñaar ñuy ànd. mooy que rek lu rëy la. bu ma la waxalee nga yàqu. su ma ko waxalee mu génn àdduna su ma ko waxalee dootu fi xaj. dëgg la yooyu nañ koy moytu. li ko indi nag mooy boo jëlee sa bopp lebal ko nit ki pour mu fay la dafay jafe. dëgg la kenn ku nekk mën nga ànd ak nit ki selon li nga mën mais xamal fi nga yem xamal fi nga yemal. dëgg la am réserve. te xale jigéen yi dañu bëgg àndandoo beneen bi topp taa diggéen mooy jeeg mën na am xarit jeeg mën na àndandoo mais jeeg du jël moromam jeegam fat ko ci biir këram dëgg la gis nga ay nit bu ngeen soqee ko benn karaw bu weex yéen ñaar kenn ku ci nekk ci yéen hmm. su ngeen dee ànd xam leen ne a ànd mais xaritoo woo leen bul jël sa biir di ko yebbi amal sa ëmbub mën a kan taa dégg nga ne sa ruqub mën a kan baax boo cay dem yóbbaaleel sa ëmbub a kan baax na boo demee ba ci sa ruq nga toog tekki sa ëmbub mën a kan boobu tànn li nga xamante ne fóot mu tilim la ca nga xool noo koy fetelee sa bopp la nga xam ne neexu la ca nga jël ko déglu taa dégg la muy wax nga jéem ci jikko boobu mais soo jëlee sa bopp dem taylee ko sa mami na la wóor ne mami moom bayaalu xuja bajaan bee ca Thiès fa lay dem toog ko ne la ko ràccalu di tax macc la ba làmmiñam booy loolu la Lamine Samba di wax xam nga daf ci am lenn loo xamante ne ne euh, Ndoye man dama ciy taxaw parce que danga nga junj sànq benn affaire bu doy waar mooy am jëkkër am far loolu war mënu ko weesu te dafa mel ni euh, dafa xew dafa mel ni bouton réew mi foo tourné gis ko ñu gis ci ay jigéen yoo xamante ne bu njëkkaan bañ ko daan def dañ ko daan nëbb xeetu wor la sax boo xamante ne nekk dañ ko daan nëbb waaye léegi mu nekk xeetu wor boo xam ne dañ koy ndamoo gis nga ñun ñi nga xam ne ñun ñooy toog ci euh, salon de coiffure da nga ki gis jongoma joo xamante ne day toog di ndamoo wala boog di waxtaanee li nga xamante ne ne mbiru faram la te nga gis ne marié la man dama ne ñaar lañ ci namm ou euh, ñu nga cay ut ay moroom di bëgg xam ñañu toogal ndax même bande lañu ndax ñoo bokk ay bëgg-bëgg ndax ñoo bokk ay intérêt wala boog dem na ba nga xamante ne xeetu bon bon boobu jalise nañ ko ko ba def ko banaliser ci boppam mu nekk mbir mu doy waar xam nga donc ñu dem ba nga xamante ne ne que wóor pour man mënu koo weesu ki nga xamante ne takk na la ci farata Yàlla ak sunna Muhammad jël la jéggi ay kër teg la ci place yaa xam ngeen am doom wala amu leen doom amuloo lenn lenn lenn loo koy fayee lu dul góor bu romb naan ndeysaan xoola kii li muy xoggaliku xoola kii li muy kii moo ne de maag jabaram démb ñoo nekkoon moo ne de maag jabaram ñoo nekkoon ci auberge sàngam pour man war mënu koo weesu te loolu paquet la boo xam ne dañ ci war a taxaw ndax dañ koo xewal te ba di ko ndamoo te lu waaw dëgg la euh, taa loolu loolu moom lëmbe na réew mi moom loolu moom lëmbe na Sénégal lëmbe na réew mi jéggi na sax réew mi ndaxte soo gisee dañ koy defante réew ba réew da ngay gis ko am jëkkër fii faram yi dem France ni ko jiitu fekk fekk ma France fekk ma Maroc fekk ma Mauritanie fekk ma Gambie fekk ma Mali fekk ma tool yi nekk fii boori Pout ak ñoom seen. dëgg la tool yi de a bañ bañ. tool yi léegi demetuñu auberge de. dégg naa tool yaa ngi lëmbee réew. non tool yi tool yi ci. tool yi ay yu baax a fa nekk. ay appartement yu baax nga fa nekk fa la ñuy fa la ñuy dem. di yóbbu te en général le leen daal daal miinante bu ëpp. ci ant ci liggéeykat ji ngay gis jigéen goo xam ni amul jàmm këram jëkkëram a taxaw di ko fitnaal. di ko fitnaal. ba mu dem bureau gis moroomu jëkkër fekk fa ab mbisaan <coughs> waaw fekk fa mbisaan fekk fa ab mbisaan rek nekk fa waaw jaay taar saa yu ñëwee mu ne la ah mami sa lépp yi sa lépp yi na xanaa sa jëkkër gisul bi ngay génn voilà yooyu genre mbisaan di ko def di ko def ba ndaw si di am li nga xam ne du ko am ca jëkkëram dëgg la léegi nag bu commencé di di di génn ak moom loolu jigéen bu ko def wor nga sa boroom kër dëgg la wor nga ña la maye sa njaboot wor sa njaboot ndax utal nga wëy waaw way wudul fay woy way wulul fay nga leen nga leen wutal te te lu ne mën la cee mën la cee fekk dëgg la am na ci ñoo xam ne du ñu dem seen chauffeur bi leen di dawalal dëgg la lañ koy séqal seen gardien ba ca buntu kër ga lañ koy lañ koy séqal am na ci am na ci ñoo xam ne ñu ngi koy séq ak c'est entre entre lañ koy lañ lañ lañ koy séqee lisaan am na ci ñoo xam ni ka leen jaay ganaar ca marché ba lañ koy séqal yooyu yëpp daf ci am te loolu jigéen bu koy def am na ñoo xam dañ koy def di ko tiitaroo. am jëkkër am far dañ koy ndamoo léegi. dafa am benn gan nëbbatuñu ko. clic dafa am clic boo xam ne loolu lañ fi nekkee ay ak clic lañu dañuy dañuy bokk sax ay jouru mbaxal. Hmm. ay mbaxal ay di def seen naanu ataayaat di def seen genre. mais léeg-léeg nga gis si jigéen boo xam ne da nga koy miin ak benn góor bu muy àndal. ba yow da ngay defe ne jëkkëram la waaw benn jour ngay rendre compte rek ne du jëkkëram ndekete kii faram la te da nga leen tàmm di gis ci ay milieu ñuy ànd ci ay oto yu kenn xamul mu dem ndekete kooku muy àndal chaque jour faram la effectivement mën na nekk ki lay jaay oto en général gis naa ci xam ne ki koy ki ko ki jaay oto ki ko jaay oto moom moom moom moom moom lay génnal te jëkkër ji bi mu waxaalee oto ba d'accord jëkkër ji ci boppam waa jooju la yónnee xaalis bi mu jaay ko oto bi lañ mujjante mooy mooy la la kon waa ji encaissé ñaari yoon waa encaissé ñaari yoon mam yi dafa lëmbe waaw dafa xam nga foo fekk dëbbkatu linjaa dañ koy dëbb linjaa li ndooy wax jaaykatu oto bi moo ma fàttali ndaw si dafa yor jëkkëram di ngorowante koo xamante ne nii beneen waay waa ji yóbbu ko ne ko dama lay jëndal oto mais daf ko yóbbu ci benn ndooy baan parce que bàllangoom moom ko yóbbu da ngeen di wax mbiis mais di leen wax bàllangoom bi mu ko yóbboo ci moom ne ko dama lay jëndal oto daf ci boole fayal ko permis ci auto école ba mais bi mu ñëwee daf ne xale bi dafay jàng bis bu permis génnee oto bi xalee naa oto bi un million am ma jox la 1 million bi waññi 1 bi joxoo ko ci kanamu ndaw si ndaw si dem waa ji bi mu demee ànd ak ndaw si dem ba ngoon jot mu ñëwaat jox waa ji 40 mille ne ko delloo ma sama 1 million bu dee man rekka du dawal na dem jëkkëram jëndal ko oto kon ñu xam ne yaa ngi koy def yaakaar ne nit ki nga koy def fekk defoo ko ko yow sa bopp nga koy def yéene la maaka la borom moo koy këppoo mais taa li ci gën a neex mooy mais yëpp gi ngay yëpp lu sa jëkkër yëpp lu sa doom dafa am benn waay boo xam ne mi ngi bitim réew su xel mi demul carrément tamit xam naa ne am na naqar bu muy dund boo xamante ne dëgg la ci sori na ci moom bis bi mu waree yóbbu ay doomam ak jabaram pour ñu dem tukki xam nga bitim réew dafa am benn système bu ñuy def léegi mooy soo bëggee jox say ay doom këyit dañuy xool ba xam ndax yow yaa leen jur wala juróol la dañuy def test ADN bi mu ko defee ndeketewoo te juróom ñaari doom yi mu yor Sénégal yëpp juru ci kenn yàgg naa la wax. ci test ADN bi gaa ñi ngénte ay doom ñu jurul. bëri na bëri na ci lañ xamee et ndaw si moo néeg. xanaa yow juróom ngénte ngénte loo jurul bëri na. ngénte juróom ñaari doom te juróo ci kenn nga dem ba war a may xale yi ay kayit ñu yóbbu leen defal leen test ADN mu wóor la ne yow juróom ñaari doom yëpp juróo leen rëy la yow tey ndaw soosu nan nga ko war a def mais bëri na ndaw soosu bën bët nga ko war a xool bëri na parce que yow kooku waru la yow rek mais xoolal bañ bi ngay bañ xale yi xoolal yow après xale yooyu fan la ñuy mujj kooku ki mu war dafa bëri mais beneen wor bi gën a garaaw ci Sénégal mooy suñu mbokk journaliste yi bala ñuy bindati nañu xool ba xam ndax ñaari nit ñu xuloo la wala déet mhm. man damay ànd ak ndoy baan muy neex mhm. ndoy di ma jox xaalisam du ma ko mus a waxal du ma ko mus a sosal kenn du xam li ñu seq ñun ñaar mu metti rek ma xëy tey woo mu Mouhamadou Mouhamed Ndiaye mhm. ne ko ndoy baan boo ko xamoon revue de presse al ma ko xam nag sama sama góor la moo tax ma saña a jël exemple bi ci moom mm-hmm. wéet ak moom dabb ko dara mu xëy suba bindal ma lu rëy ci ndoy baat mm-hmm. ñu revue de presse ko mais lan nga xeet nga tas dëgg askan nga tas parce que nit ki ngay yàq dafa am famille nit ki ngay yàq dafa am ndey dafa am baay boole ceeg lu génn ci rajo siiw na ñëpp a ci jotandoo dëgg la même soo toogee ba ëllëg nga delluwaat ci kooku naan ko baal ma amul tamit ñiy jàpp jàpp nañ pare parce que Sénégal dafa bari borom xel yu nëx yu mel ne man donc dañuy xool ni ñuy warantee daal dañuy xool gis nga euh, Ndoye foofu ñu dugg ci wàllu kër yi mi génn léegi ci wàllu li nga xamante ne tamit dafa xew li ñuy naan dafa am yenn yoo xamante ne même suñ ko poussé foog ñu delloowaat fa suñu loxo ndax dafa xasante dafa metti bëri na fi ay jigéen yoo xamante ne ne que ñoom ah, dañuy fii nii dañ fiy gis kenn koo xam ne dafa am léppam yor teraangaam yor këram yor lépp waaye amul jëkkër nga gis yow li ngay toog dangay naan man dama bëgg dama bëgg kenn koo xam ne am na diine pour mu takk ci buum xam nga dafa bëri ay jigéen yoo xam ne ba jàng jotee dañu jàng ba ne ar ba liggéey jotee dañu liggéey mais suñu borom bi joxagu leen jëkkër ñu toll am ay 40 ans ou plus ay 50 amuñu jëkkër nga gis ci ñenn ñoo xamante ne ne que seen xarit la ñuy doon wala boog seen mbokk la ñuy doon xam nga li ñuy dem dañuy ne yow fekk ab daal wala benn misaan ndax misaan sañ na lu ne ñëw ñu ne ko yow daal dafa am sama benn xarit boo xamante ne ne am na lépp lépp am na ko waaye jëkkër la amul dimbale ma rek yow bul ko nap sax jéem cee dugg rek mu lekk ci looloo lorol yaa ngi dégg Mbissa nekk ko am fit koo xamante ne ne que mami moo koy coaché wala yow mi nga xam ne càmmiñu ndaw si nga nga ñëw dugg ci li xale yi di wax dëbb ko lindaa su ko defee processus bi ngeen def li ndaw si liggéeyoon yëpp ngeen taxaw pour lekk ko déstabiliser ndaw sa te am na ci ñenn ñoo xam ne ba âge boobu da nga leen fekk ñu denc seen ndaw denc seen lépp loolu tamit foog mu war yu doy waar la. foog mu war bu war bu doy waar la bi bi bi bi ma ci gis eh, eh, góor ak ku jigéen la seen yaay gaañu. bàyyi fi alal ñu ñu ñu ñu ñu miraas ku jigéen ki am alal yor alal am ay terrain ku góor gi tamit noonu mais magay rakk bi ñoo bokk kër déggoo et tout benn waaye jógee Amérique gis ndaw si rek xam histoire ndaw si ni mu demee xam ne ñii denc leen dara mu ñëw nii di commencé ko labat ni da koy takk frère bi que mooy mag te mooy fii mooy kilifaam mu woo ndijaay yeeg yooyu ñu maye leen waa ji nekk ci biir kër gi dafa benn 3 mois. su du dem su demee ville suy ñëw jënd xar jaar seeraat jënd xar jënd ay bagages yu dee dem bii frigo ba fees commencé di incarner loo xam ci kër gi frère bi dafa gis carrément ni waa ji yor na ko kii daal mën naa yor sama sama sama sama sœur su takkee sama sœur ba utal yóbbu ko këram nag man ma mën a takk jabar indi ko ci kër gi mhm. waa ji noonu noonu noonu ba un mois jékki-jékki nag muy leb waa mu leen di leb deux cent mille cinq cent mille di leen leb di bind ñu koy bind de. Kayoor. ki jógee Amérique dugg ci biir kër gi. waaw takk njirim yoo takk njirim boobu. ndaw soosu yaayam gaañu. waaw moo commencé nag investir na ba ñëpp xam ni. yaakaar ni moom. maanaam sexal na leen. sexal na leen ba ñu yaakaar ni ñàkkul dara parce que daf leen ko sexal leen ko da koo otal. otal ba mu jënd ñëw ñu commencé. waa ji ñëw di ko lebal parce que waa ji tamit mi dencoon na xaalis te mi ngi def commerce yu ndaw di ba lebal waa ji ay 500000 ay 1 million damay génne sama conteneur damay def li lebal leen leb ba leblem lu toll cinq 5 millions jékki-jékki nit tur delluwaat fekk bàyyi ndaw seeg ëmb ndaw si am na doom frère ba moo ngénte dootuñu gisati waajeeg bët. fan na frère bay ngénte moo def lépp. ba pare xaalis ba mu ko leboon ba tey jii ba tey jii tey jii waa jaa ngi États-Unis ba tey fayu leen tas nañ sëy ba. bàyyi fa doom bàyyi fa doom tas nañ sëy ba ba frère bi ndaw si am na beneen jëkkër feneen ba sëy ba nekk di di sëy sëy mais ba tey ji mënuñoo gis waaj. loolu bëri xam nga kooku dafa étudier ndaw si. waaw mais xam li ñuy dund. waaw mais dafa bëri. loolu loolu ay xeetu waru yu doy waar moo tax jigéen ñi nañuy def ah, nañuy bu ñu dugg ci ku ne. mais mais mais xam nga xam nga pour échapper ci moo moo moo di. su yombee rek. ndax xam nga lu tax su yombee rek dawal su dee ñu fekkee mami non du yomb sax am na ci ñenn ñoo xam ne nee naa la dañ lay étudier étudier maanaam wóorkat yi dañ lay étudier yow nga defe nii immigré yi nga xam ñu ngi takk fii jabar ba xëy suba ba toog ba étudier leen nee la foog ma jaar sama kër yaay nga toog sama kër yaay un an deux ans ndaw si di yeeru rek parce que objectif am mooy toog sa kër yaay di ko fóotal di ko lan pour génn dëkk bi rek. mais yow loo toog imaginer ndaw si nga xam ne sa yaay gërëm na ko say sœur gërëm na ko ñëpp ba ngay suba nga ne kii daal ginnaaw sama yaay gërëm na ko ak yëpp naa ko xëcc paasal ko mu ñëw sama wet yow mënoo imaginer immigré boobu ne kooku dafa ñëw pour war la mënoo ko imaginer man mooy ni koy waxee rek gis nga warkat dëggantaan day yeeru parce que fekk yeer woo mënoo rey ki nga bëgg a rey dëggantaan mais xam nga mooy mooy comme li taa ngeen wax sànq xam nga da ngay gis euh, nappkat kii ñiy napp ak onze xam nga loolu ñuy dugal ci once bi du bëgg a suural jën bi mais wut noo ko jàppee la xam nga kii ñëw pour dëbb la liñ jaay yow pour nga xam fan ngay jaar ba mucc ci moom léeg-léeg dafay xaw a jafe ndax ni taa ngeen di wax rek dina soloo mbubb mu nekk dina ko sol casquette bu nekk dina ko sol xam nga man tey dëbb ma linjaay yomb na ndax dangay ñëw nuyu ma rek ne ma Cheikh Ablaat nga tudd boo ma ko waxee rek dëbb nga ma linjaay man xam nga nag boo bu ñu demee nag ba jàngat ci yow xam ne noonu nga mel pour ñu dóor la ko dafay yomb mais daal nañu xam ne dëbb linjaay yëpp yëpp yëpp bi ci gën a metti mooy nga def ko ki nga bokkal nday ak baay wala nga def ko ki nga xamante ne soxna la yaa ko takk mu nekk ci biir kër gi wala borom kër gi nga xamante ne moo la takk nga def ko ko nañ ko moytu daal ndax war daal baaxul moytu nañ ko moytu war baaxul war yooyu nag mami dem na ba ci ki la jàngal métier ba foog ñu taxaw fa tailleur waaw ki la jàngal métier parce que métier bu mën a doon uh-huh. métier tailleur métier animation borom boutique métier boutique uh-huh. métier lu mu mën a ti doon ba ki nga xam ne sax mooy tukki di la wax kaay ma lebal la wan la yoon bi comme ça bés boo liggéeyee fay xanaa xamoo wóorkat dëgg day bett ki nga xamante ne ko parce que yow da ngay ñëw ci sincérité ak man su fekkente ne par exemple ci milieu animation reconnaissance bi nga xam ne am na ko ba toog ba toog keroog jooju sama yaay wax naa la bi muy jooy ci gërëm yi nga xam ne dañ ko doon gërëm dooyu baan naan ko moo la jàngal non moo ma def animatrice mais am na ñoo xamante ne wóor lañ koy jëndee mm-hmm, mm-hmm. donc xeetu wóor yooyu dafa bëri ci métier nga gis yàq sa der nga gis ci tailleur yoo xamante ne nekk tamit ba ka leen toogaloon ci kii Euh, ca ca ca machine dañuy wëlbati ko woo ko nga gis keneen koo xam ne ki tax ñuy wàccee tey ay conteneur kooku amaana non seulement dinañ ko wong waaye dinañ ko jéem a def ay xew fa fuuf fa ba nga dof loo man gis naa benn femme boo xamante ne dafa xëyoon suba tàqali ko ak ay ak ay euh, euh, ak xelam te fekk ne ki mu jàngal métier moo ko teg mm-hmm. donc mu ngi ci béréb yi mu ngi ci marché yi mu ngi ci milieu animation yi mu ngi ci milieu tailleur yi mu ngi fu nekk jàngal nit métier ba pare mu wor la loolu benn femme boo xam ne day jëli marchandise mm-hmm. di ñëw jël koo xam ne ay doomi bàyyi lañ indi ko ci biir boutique am moo ko njëkk a tax a téye 10 000 di ko jàngal nu ñuy jaayee ba dem ba bàyyi ko mu gérer place bi mm-hmm. dem ba benn moment mu ne day takk jabar mu yëkkati la mu am ci doolee jox ko ne ko nag lii léegi yow da nga dem di takk jabar da ci tàmbali nag ubbi ci nag commencé di jaay ndax yow itam comme tax nga jabar soxla nga loo moomal sa bopp taa diggan li waa di jaay tey moom la ndaw sos di jaay ci magasin am di ko jaay en di ko jox ñeneen ñuy dem di jaay moom su soxlaa marchandise boobu day dem jënd ko ci keneen xale bu góor bi waaw su soxlaa marchandise boobu pour dem yóbbu ko ci place bi muy jaay day dem jënd ko ci keneen koo xam ne moom ndaw si ñoo bokk leen lu ñuy jaay te ndaw si moo ko jëlee dëkk ba ko a wàññi xaalis ko ne ko demal bëri suñu métier mi ñu nekk métier mu doy waar la dëgg la nañ ko moytu parce que li nga xamante ne da nga ciy fayeeku salaire di ko lekk fexeel ba mu rafet. di ci teg waxal ci ñi nga xam ne maa leen formé ñuy ñëw ci yow. Euh, dama mos a loolu nañ ko généraliser. waaw dama la ciy généraliser nañ ko généraliser dama mos a loolu tuuti rek dama nekk ak ndooy benn moment ma arrêté dem Abidjan 3 mois. bi ma ñibbisee xam nga nit ñi tekk la ñuy bañ. dëgg la te man bu la tekk dee rey ci man tey nga dee. la parce que man su ma xamee ne lii ngay bañ loolu laa lay def. la. daw si ñëw toog ni ma ana sa càmmiñ nga koo ko gis ma ne ko am mu ni ma dëbb na la linjaa day dem TFM ma ne ko am mu ni ma wor na la wor kat la day dem tafi la lay ba te xamul ne boobu chaque jour bu ndooy dee wax dina ma woo ni ma lii laay wax heure sangam laay wax heure sangam laa fay dem lii laa fa jëlee mais xoolal dama toog ak suñu waa kër muy wax ma di ko xool di ree xam nga lu ma ci jublu parce que du ko may lu ma yóbbul doy na waar kenn du ci yóbbu nit police bi mu paree avant muy génn buntu kër gi fi ma ko di nga xam ne ci milieu yi woor yi def ci bëri nañuy waxante ah. su nit ki ñëwee ci ne la taa dégg nga la la mami wax taa dégg ci saas daf may woone ma mami yaa def boobu toj toj yaa wax nangam sàngam ba ma jàpp la bu ko defee nga xam sa bopp xam ne yow am na koo xamante ne mi ngi lay dëbb liggéeyam mais métier mi daf ci bari da ngay dem jëli nit dal na la yow mi dal na keneen ak keneen da dem jël nit indi ko ci métier mi yéene ko parce que nag métier la moo xamante ne échelle la da ngay yéeg ba ca kaw kay nga jox sa loxo keneen mu yéeg parce que amuñu école bu ñuy formé ñun li ma dama wax benn waay barki ma ne ko ñun suñu métier mi dafa joox ci biir métier mi parce que amuñu école bu ñuy former yàllaa lay may rek wala nga tasee ku mu former la nit ki di la jàppale di la jàppale ba nga commencé siw gis nga boo amee ñaari fan sa ñett dootoo ko woo téléphone dootoo ko seet dootoo toog ba ne ko jërëjëf dafa neex nga toog ñu ne la li nga doon nga ne diw moo ma ko def parce que xam nga nag kenn xëyu fi egg fi nga egg kenn ku ci nekk da jaar ci loxo doomu aadama ba ka egg fa nga egg ki abal la échelle nga yéeg ba tolloog fenêtre ba ba gis nga ba ci milieu politique bi nee naa képp koo xamante ne ne que lay dimbale pour nga jàll. Mhm. dañ dem ba nga xam ne nit ñi ñemeetuñu sax dimbale nit pour mu jàll. ak ak métier boo mën a def. muy commerçant bi même su ko mënee dem pour que mu jël nit teg ko ci yoon day metti même ki nga xamante ne moo nekk ci média bi même ci ki nga xam ne moom moo nekk ci politique bi. parce que bëri na fi kenn koo xamante ne day jël propre jarbaatam mhm. dugal ko ci politique bi xëy suba laa la wax wan ko rouage politique bi te. fa nga xamante ne fa lañ lay woree ci wàllu politique ci kooku lañuy ñuy jaar pour pour ñu war la dañu dem ba nga xamante ne nit ñi nee naa dafa mel ni seen deret la nekk kon kenn defatul lu baax kenn bëggatul def lu baax dañuy dem ba nga xam ne ci li gën a ba ci miina daan doole ci kër yi dañuy warante dañuy dem ba nga xamante ne yow da ngay am sa mbokk moo xamante ne ne que nañ ko dëkk ba fa mu jugee nga indi ko ci kër gi nga ne da nga ko wóolu pour mu yoreel la sa kër ci lépp loo xam ne lu lay génnee ci kër gi ak di la fa déjjati ak di tax nga am fitna ci kër gi ci moom lay dugg kon fan lay baaxee côté côté politique bi nga njëkk a wax moom politique moom dama yaakaar ni soo mënta wor doo mën a politique fekkee mënoo wor politique rime ega euh, rime avec wor ah dëgg la waaw soo mënta wor doo doo doo doo doo doo dem il faut ngay am ay galgal di mbasante di dóor ay kii wax nit ki lii ba mu gëm la nga gëm ko mu génn nga daal di lalaat beneen beneen plan donc politique ay plan la ak ay ndëgg sërëx ak yooyu politique rit ak ak wor ci loolu nga wax ni Ndakaaru da ngay gis femmes yi bari kaw leen dëkk góor ñu bari kaw ga leen dëkk mais ñemewu ñoo jëlee seen nit seen mbokk ca kaw ga indi ko ci biir kër ñemewuñ ko ndax wor gi da jël sa mbokk indi ko sa biir kër mu nekk fa yow jeeg bi mu lay jàppale ci biir kër gi dëgg la di jàppale say doom moom ci boppam la lay metti biir ndakaaru la lay torxal biir ndakaaru lay tas sab moom moo koy plan moo koy nas moo koy def la lay indil ab wujju sax soo moo teewul moo koy moo koy indi su fekkee waa ji mënu koo su suñu xamee ni waa ji mënu koo takk moom mooy lal plan ak waa ji ba indil la wujj ci kër gi mooy tas sa kër mooy sàcc say or di jaay say bijoux loolu moo tax par exemple fekkee jéegu Ndakaaral wala jéegu Ndar wala jéegu Ziguinchor ñemeetu ñoom jëli seen bokk indi ko jëli ab jàmbur indi ko ci biir kër gi su fekkee def na nakul su dul noonu nga génnee ko kër gi moo gën a yomb nga jël ab jàmbur dugg ci biir kër gi dalay xamal day ñëw ci biir kër gi def fi nekk fi un an tabaski ba tabaski su demee tabaski xuloo ba mos a sa jëkkër dina ko nettali yaayam nettali waa dëkk ba waaw loo mus a def lu la xamal lu bon dina ko nettali yaayam neen nettali ko waa dëkk ba yow da ngay dem dem un jour dëkk ba rek information bi di ñëw mais yow da nga xam nga lu tax nga sori ndax da ne at ba at fàtte nga portable yi ci kër gi waaw mm-hmm. gis nga jarbaat yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ak mbokk yooyu nga xam ne ñu ngi indi soxlawul portable bi maanaam yendu waxuma la nag li ñuy sos ndax bëgg li neex ña nga xamante léeg-léeg sa doomu njëkke lay doon sa doomu njëkke lay doon léeg-léeg mu nekk sa doomu jëkk maanaam daal dina nekk ci sa famille yu jëkkër yoo xamante ne lépp loo xamante ne ñoo ñoo ngi toog ay 400 kilomètres de Dakar waaye portable yi chaque jour day yëkkati waaye yow ah sama nijaay di dundul kër gi de nangam kër gi de nàngam kër gi de nangam tuuti lay toog te mu ngi toog ci kër gi sama yumpaañ de bon gi mu bon fekk ne yow loo am defal ko walla kenn du lekk lu doy tuuti lay togg nit ñi bëgg ay démb de daf ko saagooxee mbubbam ba mu xotti nag nangam ak nangam da ngay dem ba nga xamante ne non seulement sa vie day nekk ci village ba waaye lañ lay sosal tamit daf ci daf daf ci yox sa lépp bay weeru ne weeru am benn fan dellu xam nga dafa metti parce que da nga yor nit ci sa biir kër moom mi ngi sa biir kër sa dara mënu ko sa néeg mënu ko sa leneen mënu ko da nga ciy gis xale yoo xam da nga leen di yor sa biir kër yow sa néeg dafay tëjee tout le temps jàmbur bi ñëw xàmmeewul yow fi ngay tëdd ak fi nga dul tëdd mais ñoom ñooy génn ci koñ bi daal ne lalam bii nga xamante ne ba mu fi sëysee ba naga ni moom la yor matt ya nag matt ya ca lal ba mm. mbàjjam mu bon mi salte gi mu salte jëkkër da ko fanaanee dóor ba bët set nga génn yow xamoo lan moo xew yaa ngi jaay waa koñ bi que ne man jigéen laa defaru ba jekk romb leen ñu ñu ngi lay keng-kengee ma ne day dañuy dem ba ñu ne da ngay da ngay da ngay ndox ca lal ba chaque guddi lépp la lay jiiñ lépp lañ lay jiiñ heure bu ñu weeree mu ne mu yow te ñu sa kër xam nga sa mbokku jëkkër wala sa mbokk yaa ngi sosal sànq da nga wax ci wala xala da ngay mel ni mami romb nii ñu naa ay waay ak ma neex ñu ne neex yëguloo ne day xémbali day xémbali de day xémbali suba gu xëyee weer waaw danga nga wax sànq ci affaire u jànq yi ñaari jànq yu bokku kër di liggéey dem ba ñëpp apprécier kenn ki jaral keneen ki mu tam kenn ki ci des tam ko daf ko tam moom tam parce que dafa wax ne waa kër gi su ngoon jotee daal li leen di daal bu ngeen ko soxlaa xam seetlu leen ko ci kii ndax damaa tëdd ak moom ba guddi muy wax wax yu doy waar yoo xamante ne kooku xay na tam gi waxuñu ko ba mu ne fàng mais ba léegi fu mu dugg ñu ko koy xoole kër gu mu yendu su ngoon jotee su bay dàq ko kër gu mu yendu su ngoon même su dellu siwaate ci biir kër googu yendu fa su ngoon jotee ña taal ay garab cuuraayu saytaane ña taal di takk di jox xale yi ma nga ne dojj mais problème bi mooy mënoo mënoo ne du dëgg ndax ñoom ñaar ñoo doon bokk di fanaan mais da ngay xam ne yow lii mu wax nii du dëgg daf ko bañ dafa bëggoon mu génn kër donc yooyu yëpp daal léeg-léeg sax xam nga dafa dem gis nga xeetu am beneen boo xamante ne bu doy waar la mami gis nga ñii nga xamante ne ne ñoo ñoo jànq yi ngay wax mhm. ñu ñuy jàppal suñu doom yi ci biir kër yi ñu ngiy wër wër bu metti ndax xam nga xale su fekkente ne ne yaa ngi dem bàyyi ko ak jànq ne ko heure sàngam biberon heure sàngam nàngam heure sàngam compote fekk ne moom ma ngay lay liggéeyal ci biir kër gi nga ko foog ne dafa la bëgg waaye bëggu la xam nga lu muy yàkkam nga wane gannaaw pour que muy xiifal sa doom mhm. di xiifal sa doom di ko métital am na ci ay xale yoo xamante ne gis nga da ngay wàcc ba la lande ba nga dégg ñuy jooy rek fekk ne am na ay genre daaneel yoo xamante ne dinañ ko daaneel xale ba dëkk ba root dëkk xolal dënd ba loxo ba debwaate ak yooyu yëpp soo ñëwee duñ la wax ne xale bi daanu mu nekk ay xeetu xale yi léeg-léeg léeg-léeg nga gis xale yoo xam ne dañ ciy jële ay handicap yu moo tax ñun ñii tamit war nañ di seetlu jànq yi ndax ñun ñuy wor ay xeetu wor yoo xamante ne ci biir kër gi te def ko suñu tout tànk yi nga xam ne leen di ko dégg il faut faire très attention man bi ma mënta muñ mooy ngay yor sa jarbaat ci biir kër gi mu violé sa doom famille bi naan nañ ko nëpp nëppal ak yu kenn xamul day tas famille beeg te ñoom ñi ngay wax naa la day tas famille bi su doon seen doom la su doon sa doom góor moo ko def seen doom duñ waxee noonu waaw loolu wor bu doy waar la sa ndiyaay yor ci biir këram yow tegoo bët kenn ku dul ay doomam yu ndaw ay xale yu ndaw nga leen di sàkku di leen def naka su dul noonu ba violé leen ci biir kër gi su ko defee yow yow femme bi say njëkkee ñëw taxaw sa doom mu njëkkee violé sa doom sa doomu sa sa yow yow yow mi ji sëy ci kër gi sa frère nekk ci biir kër gi violé sa doom ñu war a jóg nga naan noonoo day yàq mbokk geeg yooyu loolu yàqul benn mbokk ku def ku def lu toll noonu doon magum jëm mu def ko ba nga koy def xalaatoo kon boog suñuy gars yi soo soo soo violé doomi jàmbur su lay yóbbu ci kaso kaso bi say mbokk waru ñoo taxaw naan day yàq mbokk gi te en général loolu dafa bari ñiy violé soo leen toppee ba topp leen ba topp leen en général ndijaayu boroom kër gi euh, jarbaatu boroom kër gi lay doon wala rakku ja euh, magu soxna siy sëy ci kër gi wala rakkam yoo xam ne mi ngi ci biir kër gi wala sax mu doon papay gone gi ci boppam loolu dafay bari papay gone loolu imagineel nga am ay xeetu ñaawteef wor bi gën a rëy mooy wor bi gën a rëy taa diggéen mooy sa jëkkër sàkku doomam ji nga xam ne yow yaa ko waaw waaw waaw loolu ko gën a rëy loolu boobu gàcce boobu ko ba pare mu xëy suba sàkk ko waaw loolu dafa ñaaw jigéen googu am na am na am na fi ñoo xamante ne seen doom yi jigéen ñooy seen wujj waaw ci kër gi te jëkkër ji di ko def te yow mi yow mi ñu koy def yow mi soxna si yow yaa koy mujj yëg koñ baag ñëpp ko yëg waaye yow yaa koy mujj yëg loolu war mënu ko loolu jëkkër ju la war loolu danga gënu ko rëy mooy mooy xale yu jigéen yi nga ne ngay xale yu jigéen yi nga xamante ne nii ñu ngi koy séq ak seen papa yi jiit la yi seen papa seen papa yi ak di di jël beneen xale bu jigéen di ko sexal seen papa yi war sa yaay la parce que jàpp naa ne yaay ji la jur waroo ko mën a bañ bañ bu toll ne nga war a mën a bëgg bokk ak moom benn góor ak liy góor ci réew mi war na mën dem wuti feneen ci fagateel ak sunu si Mouhamed bëgg a ñëw bëgg a laa bokkaat benn doom bi muy ànd di seq ak benn doom bi xam naa daal waxtu wi dab nañu waaye daal xeetu wor yi suñ koy topp ku ci nekk gis na ci boppam ndax ku ci nekk ak li ngay dund mhm. ànd ak lu ci mën a nekk ni dañ ko topp ci kàttanu yàlla mami la mot de la fin ndax dañuy tàggoo di fàttali rek ne ñu ngi en direct depuis la foire internationale de Dakar xumb xumb yi nag yéen ñëpp bàyyi leen li ngeen di def ngeen daw si ñëw ci foire bi mhm. ndax dëgg-dëgg ñàkk fee fréquenté erreur la te xam nga ne groupe Futur Média est en fête waaye tamit am na ay xeetu concert yu ñu fi pare tey dafa mel ni maa ngi dégg sama doom Baye Cheikh man fi lay yendu Abdou Guité Seck mhm. mooy ñëw ak ak Ousmane Seck lu neexee noonu daal defe naa ne fi ngay yem tey ngay toog ba conseil bi jeex xam nga Baye Cheikh da doon wax ci suba nee na géej gi Casamance waaw te daf maa commencé di fi xam ah, de tàggool tey ne lu ci dàmba daal tukkiwul dafa ñibbi nañu xam ne ñunu nee na warante bi jaru ko fi parce que li yàlla bind ci sa jëbi alaa ku lihaal du jaas dafay ñëw di tàgguwaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen xanaa kon ba subaak jàmm di wax nag ne dama am sama benn doom bu nekk fële ca marché HLM di ko wax joyeux anniversaire Aliou la boo loolu laa waroon njëkkee sax moom moo ma génne fii ah fi fi mu la génne mi ngi def anniversaire am au ma jox ko moom moom ma woo ba ma ñëw ah, moo nekk fële ca cité suprême nga xam ne moom i tardé rek moo tax joxuma mi yaa écritel bi ndax nag man bokk ma woon ci ñii moom moo ñëw génne ma fii kon daal Diop yàlla sa jàmm yàgg waaye nag Simone mi ma ko tegal nekk fële ca Ouest Foire yooyu baax Baye nag dama bàyyee woon kontaan nañu kon bàyyi Baye Cheikh Cheikh Ndoye après di dugg ci foire bi def micro trottoir ci Janfa Mani def micro trottoir ci Woru dugg ci pavillon yëpp laajte parce que ku ci nekk ak sa expérience su ko defee ñooñu incha allah ñu teg leen suba ci kàttanu yàlla ndax defe naa ni thème bi li ñuy wax yaa à boire et à manger kon bul fàtte Marie Bane yekk yu baax yi yaayu bébé faa waaw waaw <laughs> jaajëf jaajëf taa dégg ngeen ñi ngi ziar ñëpp di tàggu ñëpp ba suba ak jàmm day jaar sama benn maire bu tudd maire ñaaña jàmme mi ngi lay nuyu baax ma nga fële ca almati sama kook sama tante la ak astu lay ak ayda lay ñooñu ay doomam lañ ña nga ca États-Unis waa Pire lañu maa ngi leen di ziar bu baax a baax astu lay ak ayda lay ak seen yaay maire yaaya jàmme ak seen papa Moustapha lay ca Pire gu rëy di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan di leen jox rendez-vous suba incha allah ndeysaan hmm. kontaan nañu bu baax a baax delluwaat rek ziarat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi di ci ñoom ñaan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 di nuyu tamit Amidia Linguère Amidia Fatabakalla macha allah ak ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy topp saa su ne Fatabakalla macha allah nee naa leen kulim juum waaye daal dañ leen di jox rendez-vous suba depuis la foire internationale de Dakar jërë ngeen jëf à demain incha allah.